xareeb Uhud dañ ko daan tuddee talxatul xayri xare ñëwaat ñu tuddee ko talxatul fayaad beneen xare bi ñu tuddee ko talxatul jawaat te yooyu yëpp taxawaayam ak melokaanam moo ko ko may waaye am na ci góor gu baax gu ñaan tuddee anas bokkut ak anas ibnu malik nag anas ibnu nadir nadir lañ ko daan wax dafa tardé woon xareeb badar yàlla dogal nag xareeb uxut bi fekk ko fa mu gaaw a takkaayu armé wu rek jëm ca xare ba foo jëm mu ne daal xet ak aljana moo may xeeñ ba mu demee ca xare ba seytaane siiwal ne rey nañ sayduna muhammad gaa yu bari gëm ko jullit ñu bari xaw a découragé wu ba tax na sax jullit ñi defoon nañ ñetti xaaj xare ba métti na bañ def ñetti xaaj am nañ xaaj boo xam ne dañoo daw carrément wan yonent bi gannaaw ñëwaatuñu am ci xaaj boo xam ne dañoo daw ba mu sori ñu door a ñëwaat am ci xaaj boo xam ne ñoom sonn ñoo daw ñooña talxatul xayri moo leen jiite woon moom sax la ñu wax ne moom rek a dawut waaye ñu ne sax même ña dawoon bañ sori ñëwaat Ousmane ibnu Affan ca la bokk moo tax benn bis daana toog benn doomi bàjjanam di ko ñaawal ne ko Ousmane fàtte nga sa dawi xareb Uhud ya mu ne ko yàlla jégal nañu ko loo ci fàttaliku yàlla ne jégal naa leen ko kon jërutul nga koy fàttaliku talxatu moomu nag moo protéger woon yonent bi waaf ci kawam noon ya di ko dëbb ay jaase ak i xeej ndax bi xare bi paase fekk nañu ñaar fukki jam-jam ci yaramam wi waaye loolu lépp bu ko defutoon jam-jam yee ci kaw sayyiduna Muhammad lay dal kon nit ku baax ku dëggu la anas moomu tamit nag bi mu demee ñu ñu annoncé ne rey nañu yonent bi mu fekk Omar toog mu ne leen lu ngeen toog mu ne ko dégg nañ rey nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bu yonentu xasee génn àdduna dund amatul njariñ jël nga naayam rek songu yéeféer yi moom ñu mujj ray ko biñ ko rayee ñu vérifié ji moom ji fekk nañ ci juróom-ñett fukki jam-jam keroog la fanaani àllaaxira noonu la ko bëggee woon comme ni ko Malik mële euh, maanaam sax Saxd ibnu Saxd ibnu Muaas mi àtte woon démb waa Bani Quraysata nam ko bëggee woon ndax ci xareeb xam ndax la jëlee woon góom bu métti ba pare ba muy ñibbi nag mu ne yow yàlla su fekkee xare yonantu bi jeexaguñ sama góom bi yàlla bu ma ci wér naa dee ndax ma nekk ku shahid su fekkee xare yonantu bi nag des na nag ma wéral ba bu xare amee ma mën a xeexaat waaye ndeysaanam bi mu àttee ba Bani Quraysata ca ray ga ay fan la ci teg rek mu génn àdduna góom ba moo ko jàpp ba bàyyiwut ko ba mu génn àdduna jullit ñi dëggu ñooñu la yàllaay wax waaye wax ji nag du ñooñu rek ku dëggu rek dugg nga ci aaya ji mooy nga dëggu ci sa wax dëggu ci sa pas-pas dëggu tamit ci sa jëf lu lu mbir bi mën a mel nu la ñëwee rek nga nga jiital dëggu ca loola xam ne li dogalab yàlla la nga préparé nag di xaar dëgg googa ba dee fekk la ca yàlla nag ñooñu lay wax ñoo xam ne préparé nañ woon toog di ko xaar ba dee nañ ñenn ñaa ngi préparé di xaar pour dee fekk leen ca waaye lañ nekkoon duñ ko ram duñ ko duñ ko duñ ko wattee dara moo tax mu ne wala ma raa ba nga xam ne gis na al na way gëm ña ba ñu gisee al ahzaba kuréel ya di fukki junne soldaar ak ñaar ñoom ñu nekk ñetti junne rek xaaloo lañ wax ñoom ñu dëgg ña ca biir ñetti junne ya ne haada lii de maa dana mooy li nga xam ne dëxaloon nañu ko laaxu yàlla li ñu yàlla dëxaloon nañu nii yonentu bi wax ñu ko ne danañ ñëw fii ak fukki fan ñu ngi nii jàkkaarloo ak ñoom yàlla dëxaloon nañu ko wa rasulahu ak yonentoon bi wa saddaqa dëggal na laahu yàlla wa rasulahu ak yonentoon bi dëggal nañ lañuy waxoon kon ñun tamit pare nañ ngir dékku ko yàlla ne wa ma jàkkaarloo gi jàkkaarloog noon yi illaa imaanan lu dul dëggal yàlla ak dëggal yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tasliman ak jébbalu de jébbalu dogal ak yàlla bi rek la leen yi yàlla ne minal muminina aji tukkeekoo la ci ay ay ay jullit rijaalun góor am maanaam bu la neexee nga ne rijaalun góor minal muminina ca way gëm ña ñooñu de sadaqoo dëggal nañ maa ahadoo lañ ko larante woon ak laaha yàlla alayhi ci moom lañ ko lerantoon ak yàlla mooy gëm ko nekk ci gannaaw yonantu bi di xeex ci lislaam di ko pratiquer ba dee fekk leen ca moo tax fa minhum am na ca ñoom man koo xam ne xaba passé na nax bahoo nisaram nga lëm nisaroon te mooy xeex ba def na ko muy Anas ibn Nadir ak talxatu Usmaan wa minhum am na ca am man koo xam ne yantasir ma ngay muñandiku pour maanaam lëm nisaroon mat dund rek moo ko fi bàyyi waaye mi ngi xaar rek loolu ñëw mu dee waaye nag ñoom ñëpp wa maa baddaloo remplacé wuñ wa maa baddaloo wattee wuñ tabdilan genn ak wattee loolu lañ newoon rek ca lañ nekk ñeen naña dee nañ ñeen ñaa ngi xaar dee yàlla nag boo gisee mu indi xare bi feeñal ñu dëggu ñi feeñal ñu dëgguwut ñi lu mu ca jublu mu ne lii gisee ngir na fay laahu yàlla saadiqiina way dëggu ña bi sidqiin ci na dëggu ndax feeg lépp ngi neex doo xàmmee ñu dëggu lu neex neex naa ànd ak ku neex neex naa ànd ak waaye lu naqari moo naqaree ànd waaye nag bu lu naqaree amee rek ci ngay xamee ñu dëgg ñu dëgguwut yàlla na bëgg leen a feeñal xam na leen waaye mu feeñal leen ci gaa yi mu mën a mu mën a fay ñu dëgguñu wa yu'adhibu mu mbugal munaafiqiina munaafiqiina yu dëgguwut insha bu ko neexee xanaa aw yatubu wala mu nangu tuub alayhim ci ñoom inna allaha naka yàlla kaana naka jekk xafuuran jéggalaa kon la rahiman yërëmaa kon la tamit de ca ña ko topp kon aaya yaa ngoog di jàngale dëggu ni mu amee solo nga dëggu ci sa wax dëggu ci sa jëf dëggu ci say pas-pas say waaw di waaw sa déeréet di déeréet ndax fii lu ne mën na fee xew waaye àllaaxira moom buñ xasee sukk ci kanam yàlla dëggu rek moo fay jariñ yow ma yawma yanfa'u saadiqiina sidquhum su ko defee kon nag dëgg lu am solo la yàllaa ngi wax ne wa kuunu ma'a saadiqiin àdduna li ko naqaril yëpp moo ñu dëgguwut ñi waaye li ko li ko neexal yëpp moo ñu dëggu ñi waaye su fekkoon ne nit ki lu mu la wax muy dëgg yow loo ko wax muy dëgg su boobaa maanaam jàmm rek ay neex jàmm rek ka fi nekk dund bi neex waaye li métti mooy léeg léegi nit ki wax la te la muy wax gëmu ca dara léeg-léeg nit ki jëf te la muy jëf maanaam gëmu ca dara ngistal rek su ko defee kon nag àdduna li ko nëxal jafeel ko yépp mooy ñàkk dëggu yàlla nag du du jël nit ñi rek nga ne gën naa yàlla mu koy dugal la aljana fokk mu nattu la seet ba xam dëggu nga am dëggu woo nattu googa ci dëggoog ñàkk dëggu moo indi xare ndax dem sóobu loo xam ne wóor na leen sa bakkan man na caa des nga bàyyi njaboot bàyyi soxna bàyyi alal te mu jaral la tey sa bakkan des ci ku dëgguwul mënuloo ko soo dëgguwul rek wane gannaaw li mu yàlla digal tamit ci yu bëri ñu koy def ak lim ñu tere ku dëgguwul mënuloo ko fajar jot nga yeewu jàpp maanaam dox jëm sa jàkka ja julli takk sa daal lii dem liggéey liggéeyi asaka war sa alal nga génnee ko aj maaka dab la nga dem aji di dimbali li ngi te fekk yàlla tax li nga gëm nga di ko jëfee loola ku dëgguwul mënuloo ko ndax yoon dafa guddu te yàgg maanaam bu ñu dëgguwul rek bu yàggee rek ñu découragé arrière ak ca lañ nekkoon su ko defee kon nag yàlla dafa bëgg a feeñal ñu dëgguwul ñu ci ñu dëggu ñi su ko defee mu man leen a jox payoor ñoom ñu dëggu ñu dëgguwul mu yóbbu leen aljana moo tax mu ne am xasibtumu an tadxulul jannata wala maa yaatikum masalul lazina xalaw min qablikum masathumul ba'sa wa darraau wa zulsilu xata yaqulu rasul walazina amanu maahu mattee nasrullah ala inna nasrallahi qarib kon fokk yàlla gësam nit ñi teg leen a nattu teg leen a jafe-jafe ba mën a xàmmee ci ba nit ñi mën a xàmmee ne ñii dëggu ñii tamit ñi mën a xàmmee ne dëgguwuñu kon yàlla nañu yàlla boole ca kuréel bu dëggu ba aaya yi nag tegu ci yàlla nga koy wax di wane ne mushrikuuna yooya ak munaafiquuna ya tar ca laxsaab lañ bëggoon amuñu ko jël nañ seeni armée fukki junne ñaar bëgg ñëw pour faagaagal yonantu bi kuréelam bu tuuti ba yàlla dimbale na ko ci xalaatab Salmaan gas nañu pax mu wër leen gaa yi ñëw nañu mënuñoo dugg foofa ñaara doon seet soon na dugg dee nañu muy nawfal doon a jéem a dugg fasaw wa dugg ci biir kàmb gi mu mujj dee àllim fekk ko fa moo ko jekkali yéeféer yi yónnee fukki maanaam fukki maanaam fukki junne dërëm pour ne nañ leen jaay koor bi yonantu bi ne soxlawuma koor ab yéeféer jël leen ko keneen ki mooy Omar ibnu Abdul Wuddi Ali ibnu Abi Taalib a ko rey fekk mi nga am juróom-ñeent fukki at yu am fukki at ak juróom-ñaar kooka tamit doon a jéem a dugg na mbir ma jeex ba ñu sonnee ba sonn mujj takk seen bagage yi ñibbi ànd ak mer lañ bàyyi woon gannaaw yàqu na te liñ doon wut si amuñu ko su ko defee na ñoom la yàlla di wax nii ci aayaat yi bu mu paree dana ci tofal tamit banu Qurayza te gi dëkkoon ak yonent bi firi kóllëre ga yaakaaroon ne tey dañu faagaagal yonent bi ñoom tamit lañ bëggoon amuñu ko xeex mujjul am te ñoom mbir mi mujj na a dal ci seen kaw ndax mu gën a ñu àtte seen xale yu góor ak seen mag ña mat a xeex yépp matoon juróom-ñaar téeméer ñi rey leen seen jigéen ñi ak seen xale yi ñu jàppalee ni jaam su ko defee seen kër ya jël seen suuf ya loolu lépp jullit ñu mujj bénéfice ko kon ñoom tamit kenn gënu leen a perte ci xeex bi ñi gën a perte ci xeex bi mooy banu Qurayzata nii nga xam ne maanaam ñoom dañoon dëkkoon ak yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca madinatul munawara kon tamit maanaam naa feq ngoog rek lañ ciy jàngee léeg-léeg naa feq nga ànd ak moom mu neex dama dem ba yaakaar dina naqar rek mu jàmbu la bu la jàmbuwaatee nag ba neex neex ñëw day mujj rus kon ñee tamit bañ ba muy naqari ba muy naqari ànd nañu ak yonent bi mu muy neex kon mu dem a dem ba nar a naqari ñu bëgg a jàmbu yonent bi moo tax it jàmbu ga dal ci seen kaw ñoom ñëpp ñu mu ray leen kon su ko defee bu neexee bu naqaree rek jàppal mu dëgër moo tax yàlla ne waradda delloo na laahu yàlla la fi na nga xam ne kafaroo weddi nañ bi xayrihim ànd ak seen merga lam yanaaloo amuñu xayran yiw lañ bëggoon amuñu ko wa kafa fegal na laahu yàlla almu'miniina way gëm ña xitaala xeex ba xeex ba mujjut am wa kaana naka jekka laahu yàlla xawiyan aji am kartan la ci jañ lu mu bëgg a jañ asisan aji not la ci nguuram ba wëyal lu mu bëgg a wëyal sa ansala wàcce na li fi na nga xam ne zaaharuhum ñoo leen doon sotle di banu quraysata mu min ahlil kitaab ci laa la mu ahli kitaab la wàccee nañ leen min sayaasihim si seen tataya ci seen tata tataya wa qadafa sànni na moom yàlla fi qulubum seen xol yi ar-ru'ba ak tiitaange mooy waral fariqan kuréel taqtuluuna da ngeen rey leen muy seen mag ña wa tasuruuna da ngeen jar-jar jàpp jar-jar fariqan kuréel mooy seen xale yaak seen jigéen ña wa awrasakum dollu noo leneen moom yàlla ardahum seen suuf ya ñu jigéen ko doon yem jullit ñi wa diyaarahum ak seen kër ya wa amwaalahum ak seen alal yëpp muy seen gàtt ya doon ngeen ko wa ardan ak suuf lam tatawuha boobu dëggagu leen ca mooy xaybar mi ngi ñëw léegi tey ñaari at nañ ciy teg rek ngeen dem xeex ak waa xaybar yi génnee leen doonu seen suuf sa wa kaana naka jekk allaahu yàlla maanaam xadiran aji xattan la ala kulli seen ci amal lépp ci amal lépp lëf kon gis nga ko musrikoona ya lañ bëggoon sottiwut perte lañ seen temps bi lañ bàyyi woon gannaaw yàqu lañ doon wut si ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mujj am ñi mujj échec banu Qurayza te gay dëkkoon ak yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yonantu bi façon tamit ñoom kóllëre ñu mujj bañ yaakaaree na yonantu bi du génn ci lii mbiram naa feq jot leen muy ak nifaaq ñu mujj jàmb yonantu mi fi mu jaaroon ñoom démb dem ànd ak gaa yele waaye ñoom tamit mujj nañ safara wi ci seen kaw rek la mu ngi tàngee moo tax ba mbir may xare bay jeex rek yonantu bi ñibbi ba mu ñibbee këram war a aye ci néeg soxnaam umu salmata mu commencé ko raxasal genn wàllu boppam bi pareegut rek jibril ñëw ne ko da ngeen a teg ngànnaay yi mu ne ko waaw xeex bi jeex na mu ne ko jeexagul de yàlla nee na na nga jël yaag sa gaay yi seen ngànnaay yi ngeen dem xeex ak waa bani qurayzata ñoom ñu firi kóllëre gi ngir yaakaar la da ngay des ci lii foofa rek la yonent bi yónni bilaal ne ko ano na nga annoncé ne falaa yusalliyanna al asra illaa fi bani qurayzata waxal ne gars yi bu kenn julli tàkkusaan lu dul ca bani qurayzata gars yi départ nañ di dem tàkkusaan dab leen benn xaaj ba dafa bëgg wax ne nañ teel a génn rek comme tàkkusaan jot na dem julli ndax moom bëggul ñu faat waxtu benn xaaj ba ne ah moom nee na bu kenn jullee tàkkusaan lu dul ñu yegg ca place ba kon ñun tamit daal duñ julli mukk lu dul ñu yegg foofa moo tax ñun tamit ñu dem julli waaye bi alquran wàccee yeddu ci ñoom ñaar kenn ñoom ñaar ñëpp ndigal lañ jëfandikoo ak kenn ku ne na nga déggee ndigal la te léegi léeg boroom xam-xam dañuy wax ne jëfee teggiin moo ëpp doole jëfee ndigal maanaam ñii ñu mujj ñu dañoo jëfee teggiin ñoom lañ ko déggee moo tax ñoom da ñoom dañoo jëfee ndigal ñeneen ñi ñoom dañoo jëfee teggin waaye fekk léegi-léeg jëfee teggin ëpp doole jëfee ndigal yonentu bi mos naa ñëw fekk aboubacar fekk yonentu bi feebar na joxe ndigal ne na aboubacar jiite nit ñi ci julli gi ba muy ñëw rek fekk aboubacar commencé na julli gi yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dugg si aboubacar xam nañ moom la mu arrière yonentu bi di ko puus ne ko demal ca kanam moom nag tegginam ak yaram mayut ko muy jiite yonentu bi yonentu bi toll ni moom nekk ca gannaawam loolu mayu ko ko yonentu bi ba max ba max aboubacar arrière mu mujj di jiite yonantu bi waaye yonantu baa ko mujj jiitu kon foofa dafa jëfee ndi dafa teg teggin waaye jëfeewul ndigal ndax yonantu ne demal ca kanam mais nangu ta dem ci kanam keroog fële tamit ca Xudaybiya bi Sahl noo Omar ñëwee euh, maanaam um, fële Màkka di nekk seen ambassadeur bi ñëw war a signé ak yonantu bi ay accord mu bokk ca yooya mayuñ la nga dugg ci dëkk bi lu dul ba déwén waaye ren moom dañu wax nga dem ñibbi bindal ne ni lii laa d'accord ba accord ya ko bindal ne lii laa d'accord ak yow nee na nañ ko bind ndii la Muhammadu Rasulullahi d'accord ak Suhayl ibn Amrin yow ah, Suhayl ibn Amrin ne ko dindil Rasulullahi gi suñu xamoon ne yaay yonantu bi du ma xeex ak yow balay génneet ba ñu wax ngay génn dëkk bi defar ak Muhammad ibnu Abdallah yonantu bi moom mënta jàng te même boo ko bindalee turam du ko mën a liir mu ne ana àlli yu mu ne ko maa ngi nii mu ne ko essentiel ma Rasulullahi gi mu ne ko xéeféer bu bon bi mënta tax may effacé sa tur yonent bi wax wax digal ko effacé ko mu ne ko ma ko effacé kon foofa dafa jëfee teggiin waaye jëfee wut ndigal ndax yonent bi ne na ko defal mu bañ lu tax kon léeg-léeg jëfee teggiin moo ëpp doole maanaam jëfe ndigal kon ñoom ñi tamit dañoo jëfee teggiin ne daal yonent bi comme moo ñu ne daal fekk yegguñu buñ julli ñun daal duñ mën a julli donte waxtu yi dam ñoom tamit duñ julli keroog ñoom ba ñu julli tàkkusaan fekk na gee passé na gannaaw gee lañ julli tàkkusaan waaye yàlla ba mu ñëwee ñoom ñaar ñëpp xasut ci kenn yeddut ci kenn kenn ku ne na nga déggee message bi noonu nga ko jëfandikoo moo waral tamit ñoom ñaar ñëpp am nañ yiw kon jeex na aaya yi tegu ci yàlla ngi ciy wax ak waa kër yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ndax alquran nag dafa nekk ci dayoob toftale yonantu bi bi ko yàlla dimbalee mu xare xandax mu gañe yàlla dimbale ko mu dem Banu Qurayza te jëlee fa alal ju bari ndax mu gën a rey seen ponkal ya jël seen xale ya ak seen jigéen ya jàppalee ni jaam alal ju bari génne ca bi xare bi paasee rek nag soxnaa yonent bi juróom-ñeent la ñu woon ca jooge jamono ñu sukk ci kanamam nag ne ko situation bi soppeeku na na feeñ ci ñun ndax jigéen day bëgg moom booy soppeeku rek nga soppi ko loolu nag yonent bi lañ ko njëkk a def ne ko ñu ngi nii réere woon ni ñu sonnee amuñu ay mindaan yére yu baax yi ñu sol amuñu ko léegi léeg kenn ki ñun yore benn yére yore ko semaine bu tilimee mu fóot ko xaar mu wow mu solaat beneen mu solaat ko ñu ngi nii amuñu ay gànjar takkaay amuñ ci dara comme nag doon nañ la muñal dara nekkul fi woon léegi nag daraa ngi fi na feeñ ci ñun yonentu bi nag fe fekk léegi-léegi nga yaakaaree nit dara fekk amul dara ñu ngi yaakaar ne yonentu bi am na lu dul jeex ngir xare bi fekk yonentu bi amul dara lim am lépp jox na ko jaami yàlla yi yonentu bi ñu sonal ko wax wax juróom-ñeenti soxna yi sukk ci kanamam di sayyidatuna Aïcha xafsatu ramlatu umu salmatu sawdatu saynabu bintu jaxshin maymunatu safiyatu juwayriyatu juróom-ñeent ñii ñoo sukk ci kanamam ne ko daal sonn nañ dëgg-dëgg daal li la yàlla jox dañoo bëgg nga jox nga ci mu feeñ ci ñun ndax jigéen nag tabaarkàlla sëñ abdoulahat ku leen xam la daana wax ne li ëpp ci jigéen ñi loo leen defal ci teraanga bu paase fàtte nañ ko li teew xeeb nañ ko liy ñëw yàkkamti nañ ko fi yonent bi jaar ak ñoom ñëpp fàtte nañ ko bi ñu sonalee yonent bi nii nag yonent bi ku baax ku bari ker sax bëggul sonal kenn mu xëy nag waatal leen ne danaa leen gàddaay dem dëkk ca jàkka ja bàyyi leen fi ngir sonn xam ne boroom kër bu bu xëyee ne maa ngi bàyyi sama soxna yi gannaaw sonn na mu xëy rek wan leen gannaaw dem dëkk ca jàkka ja ne leen fii ba weer du ma ñëw ba mu leen waxee loolu nag dem ca jàkka ja nit ña siiwal ci na madinatu munawwara ne yonentu bi fase na soxnaam yi juróom-ñeent ña fase nañ leen xam nga nit ñi dañuy yokk xibaar journaliste yi xëy def ko premier titre surtout que commencé maanaam kenn ku ne xëy jàng njàngat ma ci dëkk bi Omar ne man de am naa musiba sama góoroog yonentu bi dafa nar a dagg Aboubacar wax loolu ñu sol seen dàll ñëw soxla yonentu bi diisoo na ñetti yoon ña ca yi baare leen ne yonentu bi joxagu leen autorisation pour ngeen dugg ñoom ñu gën a jàqati mu jigéen nag la yonent bi jox leen autorisation ñu dugg foofa nag yonent bii ma ngi ca biir jàkka ja Omar fekk ko fa nag mi ngi mer ànd ak jaaxle ak tiis foofa nag Omar ne daal dama ko bëgg a wax loo xam ne xelam dana dellu si ma man koo reeloo ndax am na ci ñoo xam ne tamit loo nekk ne kilifa foofu fu ñu la fekk reeloo la foofa rek la ne ko ñun de yow naa Muhammad mu ne ko labayka mu ne ko wallaay ñun de yàlla moo ñu nattu ba ñu nekk màkka ñun ñoo yilifoon suñ soxna yi ndax màkka li fa xew mooy góor ñee ilif maanaam seen jabar yi waaye bi ñu yàlla indee war a muy dëkkab juif ñoom seen jabar yi ñoo leen ilif ñun tamit ba leen seen jabar yi ilifee suñ ja suñ soxna yi toppandoor seen soxna yi ba tax na tey ñu teg ñu fitna yi xam ne kenn mënta muñ man mii sànq la ma sama soxna di laaj loo xam ne aw ma ca dara mu ñettamal ma sonal ma mais bi ma ko talaataa yonentu bi ree ne ko ah yow maag yow kon ñoo bokk feebar bi mu reyee nag ba xel mi dellu si nag mu ne ko nag dama dégg ne da ngaa fase si soxna yi mu ne ko déedéet fase wu ma leen de laaj nañ ma lu ma amut sonal nañ ma ba maag ñoom xajatuñ ca kër ga ndax bu ñu la laajee loo amul mënoo ko génnee ci kër ga te mënatoo faa nekk dangay ngay mujj génn rek yow génn naa nag bàyyee naa leen ca kër ga comme kër gi ak jàkka ji ñoo dend ci la Omar départ rek ut benn yar bëgg a songu Xafsatu doomam pour dóor ko Aboubacar départ bëgg a songu Aïcha pour dóor ko ne yéenay sonal yonantu bi di ko laaj loo xam ne ni amu ko ñoom nag ñi waat ne ko daal génn nañ ci jeexal nañ ci waaye yonantu bi comme waat na ne dana am weer ca jàkka ja mu dem nekk ca jàkka ja nekk fa weer weer wa nag ñaar fukki fan ak juróom la wañ ca timis rek yonantu bi génn ba mu ñëwee Aïcha ne ko ay weer wi deeagul ngay ñëw teel ngaa ñëw di xam nga loolu loolu rek jar na demaat ca jàkka ja jigéen ñi dafa métti léegi-léegi am lu la ci naqari nga nga ne yaa ngi koy fañ tontu la loo xam ne yow da ngay mujj bëgg a rey sa bopp weer wi deegul ngay ñëw yonent bi ne ko non weer wi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent la moo tax weer ñaar fukki fan ak juróom-ñeent rek la ñaar fukki fan ak juróom bu ko weer wi amee feeñ na buñ ko gisee feeñ na buñ ko gisul feeñ na waaye nag yonent dafa waxee waxin wu sew dafa bëgg a wan ne nag buñ amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent asamaan si lëndëm ci ay niir wala ci xiin wala jaww ji am ay poussière ba mënatu leen koo gis seetloohuma leen kenn seetlootu leen demel ngeen mottali même bu feeñee mënu leen koo gis kon bu leen ko seeti jéem leen a mottali lim bi rek fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata moo tax yonent bi juróom-ñaari weeru koor la xoor xoori juróom-ñaari weeru koor mais juróom-benn yépp ci ñaar fukki fan ak juróom juróom-ñeent la ko xoor ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent la ko xoor benn ba rek moom la asamaan si naqari seetuñu ñu mujj mottali lim ba kon weer ñaar fukki fan ak juróom la suñ ko gisee feeñ na bu ñu ko gisut feeñ na waaye comme asamaan si bu naqaree seetlootuñu nañ mottali limba lii rek lay tekki su ko defee nag bi ko ñuy sonalee ci coono bi ba mu dem ci jàkka ja weer nag door a ñib siwaat nag ah foofa nag la yàlla nag wàccee aaya ji wax ak soxnaay yonantu bi ndax yàlla ko am fula la yonantu bi moo leen di denc la leen yàlla wan waaye man maay seen goro yonantu bee leen di denc yéen soxnaay yonantu bi waaye man yàlla maay seen goro su ngeen bëggee sonal yonantu bi man maay jël sama responsabilité wax ak yéen lu ngeen bëgg a teg yonantu bi lu teguwut tamit man maa koy arrangé kon yonantu bi boo xamutoon goro bu mel ni yàlla dana sonn waaye coono bu mëgg a ñëw dal ci kawam rek mu maanaam yàlla wàccee aaya wax ak ñoom moom lay wax si nii mu ne ko nag li may wax lu lu gàtt la sa soxna yi daal di la topp di la laaj takkaay ñii di la laaj ay yére ñii di la laaj ay mbindaan bëgg laa sonal xemal na ngay yemale am leen ak ñàkk leen jigéen kon fekk yeggoogu moom foofa rek say ba neex waaye boo fi toogee naan yaay sama amul bàyyi nekk góor ak seen si njabar da nga am problème kooku foo ko fekk problème ci ngay dëkk yaay sama amul bàyyi ak yu kenn xamul boo boo ko amul da am problème moo tax yàlla ne ko li may àttee lu gàtt la wax leen ne leen mën naa leen a ñàkk ne leen daal su fekkee dañoo bëgg yàlla bëgg àllaaxira bëgg la nañ toog sëy su fekkee dañoo bëgg ay gànjar ak i takkaay ak ay mbindaan nañ génn kër gi mu wutal la ñeneen ñu leen gën coow la jeex ba mu waxee li ñoom ñëpp ne bàyyi nañ lépp yow lañ tànn yàlla lañ tànn àllaaxira lañ tànn dootuñ la laajati dara keroog la yonent bi am jàmm sa soxla si tamit feeg wanoo ko loolu doo am jàmm feeg wanoo ko ne ko nga nekk fee nga ñàkk fee ne laa yemale su boobaa maanaam doo am jàmm waaye nag bu fekkee da ngay nekk comme li ma la wax noonu rek su boobaa ci problème ngay dëkk moo tax noonu la yàlla attee ku bëgg sa kër dox tamit noonu ngay attee moo tax mu ne yaa ayyuhan nabiyyu hee yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul waxal li aswaajika ñeel sa soxna yi ne in kuntun na su ngeen nekkee turi na di namm alxayaata dund ba duniyaa bu jege bi àdduna ngeen bëgg wa zinataha ak taaram ba fa taallay na kaay leen umatix ku na ma yóbbalu leen wa usarix ku na ma berndeel leen saraaxan ak berndeel jëmi leen gu rafet su fekkee ya da ngeen bëgg àdduna ak taaru àdduna ba tax ngeen xool seeni bët ya ca Kisra ak soxnaam ya Kaysar ak soxnaam ya ñëw leen tey ma bàyyi leen ngeen dem ñibbi seen kër bàyyi ma am jàmm lii la muy benn bi beneen bi mooy wa in kuntum na su ngeen nekkee turi na di namm laaxa yàlla wa rasuluhu ak yonantoom bi wa daara ak kër ga aaxirata gu mujj ga kon toog leen ngeen sëy sëy bu rafet te xam ne ko def lii yàlla dana defal lu baax lu baax la mooy lan fa inna laaxa naka yàlla aada xadul na lil muxsanaati ñeel way rafetal ñi min kun na ci yéen ajran payoor aziman gu màgg mu ne su fekkee ne nag tànn ngeen yàlla tànn yonantu bi tànn àllaaxira dog dogu ne du ngeen solal te yonantu bi toog leen ngeen jigéen bu sëyee sëy bu baax yàlla defal ko lu baax yàlla dana ko defal doom yu baax dana ko defal wér gu yaram ak mbaax ci boppam ak barke yàlla defal ko bu génnee àdduna tamit dem aljana ndax diggante aljana ak jigéen ñeenti baaraas ida sallatil maratu xamsaha wa saamat shahraha wa xafisat farjaha wa ataat zawjaha daxalat jannata rabbiha yonentu bee ko wax nee na yéen jigéen ñi seen diggante ak aljana ñeenti baaraas dong moo fi dox baaraas bu njëkk bi mooy julli juróom boo nekkee jigéen gu bëgg a dugg aljana bul faat waxtu bu la fi weeru koor fekkee amoon ngant del woor ñetteelu baaraas bi wattul sa bopp sa jëkkër tukki na ak tukkiwut moo fi nekk bul mooy ñeenteelu baaraas bi toppal sa jëkkër lum la digal nga def ko fekk dëppoo naag digalab yàlla lum la tere nga bàyyi ko di daw ci gannaawam soo defee ñeenti baaraas yi rek yàlla jox la doom ju barke nga dee dem aljana yomb na kon ñeent yi moom la moom la moom la moom la yonent bi wax atte bi tamit moom la yàlla atte su ngeen bëggee àdduna dem leen ci nitu àdduna ña ngeen seeti Kisra dem leen seeti Kaysar ngi te ngeen xam ne yonentu bi duhu nitu àdduna nitu àllaaxira la su ngeen bëggee àllaaxira bëgg yàlla nag yonentoo ngoog da ngeen toog sëy ñoom ñëpp ne ko lañ jàppoon bàyyi nañ ko ñun kay moom kay moom jeex na xanaa yonentu bi suul ñu moom doon ñooñ waxatuñ sax ma suul sama jëkkër waaye suñu jëkkër suul ñu lañ mujj wax te jigéen ñi moom koo ci wax ak mu ne ma suul sama jëkkër ñoom bàyyi nañ xel ne yàlla ni njëkk a su ko defee kon ñoom ñëpp ne ko xanaa yonentu bi suul ñu jeex na ñun kay dootuñ demati fenn toog nag yonentu bi am jàmm kenn laajatu ko dara mu sëy ñi sëy sëy bu rafet a rafet rafet su ko defee ñi am jàmm yonent bi am jàmm lu ñu am ñu bokk ko yonent bi kenn du moom ci maandu lu ko yàlla wërsëgal mu tuuti mu bëri dafay ñëw ba ci digg kër ga mu ñëw woo leen ñoom ñëpp ñu toog mu ne séddoo leen ñoom ñëpp séddoo ba tollale képp moom mu dem génn na ca mu ne yow yàlla li ma moom maandu naa ci ma yemale naa ci képp kenn ëppaliwul sa morom yow yàlla nag li nga xam ne yow yaa ko moom yàlla nga ma ko jéggal li yàlla moom mooy xol fokk sa xol am ku mu gën a bëgg ñaari ganaar sax bu ñu fi neexee nga am koo gën a bëgg waaye nag bu mu feeñ ci sa wax bu mu feeñ ci sa jëf bu mu feeñ ci sa doxalin moo tax mu ne yow yàlla li ma moom maandu naa ci sedd léegi waaye li nga moom nag maa ngi lay ñaan yow yàlla yàlla nga ma ko jéggal muy xol ba nii la daan yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan doxalee su ko defee nag aayaat yi tegu ci mi ngi wax ci ñoom tamit ne seen mbir nekkul lu simple yéen jigéen ñi te mi ngi wax rek soxnaa yonent bi waaye bu ne soxnaa yonent bi nag dafay jaarale mbir mi ci ñoom waaye soxna yi may dégg ñoom moom message bi boobu mooy dafa ne yéen soxnaa yonantu bi ku fi toogati sonal yonantu bi ba loolu naqari ko ñaari mbugal laa lay mbugal dafay am koo xam ne daraja ji ko yàlla jox ak doole ji ko yàlla jox ak pouvoir bi ko yàlla jox benn bàkkaar bu ko defee rek yàlla bind ko ñaari bàkkaar am koo xam ne li ko yàlla defal ci mbaax bu ko defee benn mbaax mbaax bu ko defee yàlla bindal ko ñaari baax baax kon léeg-léeg bàkkaar yàlla ful ko ñaari yoon jëm ba mu gën a bëri léeg-léeg tamit benn bu baax nga def ko yàlla fulal la ko ba mu baree baree bari mu ne yéen soxnaa yonantu bi bokk leen ak yeneen soxna yi benn ñaawteef bu ngeen def rek yàlla da leen koy bindal ay ñaaw ñaawteef ndax yonantu mi leen di denc moo tax dara ji jim am moo tax mu ne yaa sa annabi hee yéen soxnaa yonantu bi man yaati képp koo xam ne indi na minkum ci yéen bi faahisatin ci ñaaw-ñaaw faahisatu yi nekk ci alquran yëpp mooy lay ak njaalo ba mooy gële nekk ci suratul baqara ak ji ashaytaanu yaidukumul faqra wa yamurukum bil faxsha faxsha yooyu nay lay firi faxsha jii nag wala faaxi faaxisatu ji moom mi ngi tekki sonal sa jëkkër di ko gundu xatal di ko laaj lu amut bu la ko joxut nga wan ko ko waaye ab soxnaa yonentu mënta mooy yonentu kum xas takk mënatoo mooy moo tax doo ko firee njaaloo moo tax mu ne man yaati képp koo xam ne indi na minkum ci yéen bi faahisatin ci ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ga mooy sonal yonantu bi mu bay na tin nga de guñ biral kooka yu daa af def na fulal lahaa ñeel ko asaa bu mbugal ma deex fay na ñaari ful ndax yonantoo tax wa kaana naka jekk daalika ful googa yasiran lu jàppandi la ala laay ci yàlla su ngeen fi caaxaanee ba sonalati yonantu bi di ko laaj lu mu amut wala ngeen bëgg koo indil problème seen benn bàkkaar boobu dinaa leen ko fulal ñaari bàkkaar day am koo xam ne benn bàkkaaram bi ñaari bàkkaar rabbana atihim di'fayni min al azabi loolu am na ci al alquran kon day am koo xam ne benn bàkkaaram bi dañ ko bindal ñaari bàkkaar donte yàlla dañuy wax ne benn bu bon nga am moom lañ lay delloo déedéet du fépp bépp place bu yàlla xormaal nga sàggan ba mooy fa yàlla sa benn mooy yàlla googu dañ la koy fulal mooy yàlla yu bari fee yonent bi tëdd muy madinatul munawara fee muy makkatal mukarrama fee muy baytil muqaddas wala yeneen amaakinul muqaddasa yi ñu xam benn boo fa def def fa benn njaalo ñu bind la njaalo gu bari nga fen fa benn fen muy fen yu bari nga nga sàcc fa alali jàmbur ñu bind la ko sàcc yu bari ndax place ba la yàlla xormaal ñaareel bi tamit léeg-léeg yàlla xormaal jamono jamono bu ko yàlla xormaalee boo ca mooyee yàlla genn mooy yàlla ga dañ la koy fulal mooy yàlla yu bari weeru koor yàlla da koo xormaal ba wàccee ci alquran te weeru koor wi boo ko xëttee def ci lu bon nga mooy ci njaaloo wala nga sàcc wala nga fen wala nga jëw wala nga xaste wala nga lekk àllu jàmbur sa genn mooy yàlla googu fekk bay koor gi jeexee dañ la koy fulal fa mooy yàlla yu bëree bëri parce que yàlla xormaal place bi mu maanaam jamono ji léegi-léegi yàlla xormaal waxtu waxtu bu ko yàlla xormaalee nga mooy ca yàlla ci waxtu wawa ba tey tamit mooy yàlla googu yàlla da koy ful su ko defee kon nag euh, ñaareel bi tamit maanaam koo xam ne dañ laa topp yow sa bopp nga réer réeral ñu lay topp ñaari mooy yàlla ngay am sa mooy yàlla ak réer ga sa mooy yàlla réeral ñu la topp moom lay alquran ne rabbana aatihim diafayni min al azab yow yàlla ñii ñu toppoon ñu ñu réer ji ñu réeral yow yàlla nang leen fulal mbugal leen ñaari mbugal moo tax maanaam ñu ñu topp benn nit la topp ñaar am nga problème moo tax ku ñu topp bu yowmal qiyaama bu ñu réglé sa mbir ba dossier ba mu leer dañuy réglé sa dossier ñu la toppoon ba mu ndax sa diggante ndax ndax teg nga leen ci yoon yoonu siraatal mustaqimam déet moo tax yàlla ne léegi-léeg ma réglé nit ba léppam dox muy jox jëm aljana yàlla ne déedéet waqifuhum innahum mas'uluun taxawal leen leen ñële ma la seen digganteeg ña nekkoon seen gannaaw kon nag yenn responsabilité bu la ko yàlla dénkee sa mbir bu leeree loola tamit danga koy leeral ba mu leer naññi moo xam li ñu dénk réew la moo xam li ñu dénk benn poste ministère la moo xam li ñu la dénk benn poste maanaam gouvernance la moo xam li ñu dénk jàkka la moo xam li ñu la dénk daayira la moo xam benn association nga jiite lu mu mun di doon bu sa diggante leeree yàgg yàlla ba pare sa digganteek nit ñi da ko leeral moo tax maanaam yonentu bi daan wax ne ittaqul waawaat responsabilité yi waral waaw yëpp daw leen ko wasiyatu ñëw muy testament ku la ko jox ne ko mënuma koo doxal boo ko mënta doxal rek delloo ko ko maanaam wilaayatu xoote ko ñëw ba tey tamit walaayatu ak pal yu mel noona nga maanaam ñi fal la ko ñëw lépp loo xam ne rek baat yi nga xam ne day ay responsabilité la toujours ci waaw la commencé yonent bi ne wax ne ittaqul waawaat su ko defee kon yooyu yëpp yu jar a bàyyi xel la kon yii ku ci mooy yàlla fulal la ko ñaari ful ba tey tamit nag ku ci topp yàlla ci soxnaa yonantu bi yàlla jël sa topp yàlla nga defal la ko ay ful boo demee ca imaamu Suyuti dafay wax ne fanweeri nit ak juróom benn yiw bi ñu def dañ koy bindal ñaari yiw yooya bokk na ci ku yoroon ab jaam bu jigéen muy amatu di ab jéebéer nga yar ko yar bu baax ci lislaam gannaaw si nga goreel ko takk ko ñaari yiw lañ la koy bindal mooy yiwu takk gi ak yiwu maanaam yor gi goreel gi ñaareel bi tamit sedd bi jot ñëpp ragal ndox nga jël ndox mu sedd mi jàpp ci dem julli ji su boobaa maanaam jam maanaam jàpp gi dañ la koy bindal benn yool ndox mu sedd mi nga ñemee jàppoo muy ñaari yoon képp koo xam ne qaadi nga ngay atte nga def ijtihaad yàlla dogal la bi nga defee ijtihaad na nga jàpp nga jàll yoon waf li nga atte mooy nekk lu jub da ngay am ñaari payoor mooy payooru atte gi ak at maanaam ak payooru ijtihaad gi bi ci tegu waxtu jot nga jàpp rek dëgmal dem jàkka ja dox gi ngay dox rek dañ la koy bindal payoor ak maanaam payoor ak julli ga muy ñaar noonu ak képp koo xam ne mindaan nga nga nekk ci kër gi di liggéey weer dee ñi fay la mais nga taxawul dépense bi di ko togg nam waree di ko joxe tamit nam waree wàññiwuloo yokkuloo la waaj a bëgg rek te mu tegu ci woon moom ngay def da am ñaari payoor payooru yàlla ma ngi koy defal ak payooru ki nga nekk ci gannaawam di liggéey ak moom kon boo nekkee surga nga nekk ci benn entreprise bu mu mën a doon wala luñ la mën a dénk ci responsabilité nga rafetal ko ngir askan wi rafetal ko ngir ñu la ko ñi ko dénk jublu ci jaamu yàlla ñaari payor la yàlla yàllay fay kon imaamu Suyuti yu dana ko lim ba mu mat maanaam fanweeri nit ak juróom-ñaar ñoo ñoo xam ne ñaari payor lañ am bokk na ci loola sax euh, yoon wu baax mais ni tey ku tabax jàkka yow tabax gi rek am nga ci payor mais ku ci julleet tamit am nga ci payor muy ñaar ku rëdd yoon defar tali nit ña jaar ca jaar gi am nga ci yool ku ca jaarati nga am ca yool nga gas teen nga tabax hôpitaux yi nit ñi di ca faju ak yeneen ak yeneen ak yeneen nga jàngal nit kooka jàngalaat keneen lu mu bëri bëri rek dugg na ca moom la maam xalifa jël xadis ba way ko ne wa man yasun sunnatan xasnaa yanal ajra man biha qad jaa képp koo xam ne da ngaa yoon wu baax ku la maan da nga ci am da ci am payoor ca def ga ku la ca fekkat timit nga am nga am nga am payoor ca ca yoonam wax kon loolu tamit lu baax a baax la kon li ci tegu nag gannaaw bi mu waxee ñoom ca loola ne ku fi def lu bon benn bu bon ma bindal na ko ñaari bàkkaar ndax yonantu mi nekk seen gannaaw waaw ñu ne ko nag ku def lu baax te nekk ci gannaaw yonantu moom lay wax si nii moo tax mu ne wa man yaqunut képp koo xam ne sax na ci topp min ku na ci yéen lillaahi ñeel yàlla wa rasulihi ak yonantoom bi wa taamal mu jëf saalihan jëf ju baax nutihaa danañu jox ko ajaraha payoram gi maratay ni ñaari yoon yonantu bee tax wa atadna xadul nañ lahaa ñeel ko risqan wërsëg kariman bu tedd muy aljana gis yàlla muy buuñaa ba yaa nisaa annabii hee yéen soxnaa yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam lastu na déet yéen ka ngeen mel ni ki mbooloo mina nisaa yi ci soxna yi bokku leen ak yeneen mbooloo su yeneen soxna yi in ittaqaytu na su fekkee ne da ngeen ragal yàlla foofu la wax ji xam bu ngeen ragalee yàlla mu xasaf ko yàlla dinañ leen jox payoor bu rëy rëy rëy mu def nag istinaaf ne falaa taxdaana bu leen nooyal bil xawli ci wax bu leen di wax ak góor ñi nooyal seen kàddu ba loola fa yatmaa sabab soos dana xemem loo àll fi nga xam ne fii qalbihi aji nekk la ca xolam ba maradun ak nifaaq su ko defee nag mu def lu bon waqar na na ngeen sax fii buyootiku na seen néeg yi wala tabaraj na bu leen di peer njaayu tabarujal jaahiliyati kem peer njaayoog jaahiliya ulaa bu njëkk ba wa aqim na na ngeen taxawal salaata julli wa aati deleen di leen joxe zakaata asaka wa atteex na na ngeen topp laax yàlla wa rasuuluhu ak yonantoom bi inna maa yuru dal dafa namu laahu yàlla li yuzhiba ngir na demee ankum walis leen ariji sa bàkkaar wa yutahir eh, eh, ahlal bayti yéen waa kër yonantu bi ay yaa ahlal bayti yéen waa kër yonantu bi wa yutahirukum laabal leen tathiran ak ak laabal ngeen seet wecc li la yàlla bëgg ci ñoom lii bu ko yàllay wax soxnaa yonantu bi mu ngi koy wax mbooleem soxna yu may dégg yéen daal ku ci topp yàlla topp sa jëkkër mu wér yàlla jox la ñaari payoor payoor ak topp yàlla ga payoor ak topp sa jëkkër ji yàlla bu bénéfice la ca doom yu baax yu bari yu barke su ko defee tamit mu ne yéen soxnaa yonantu bi yéemu leen ak yeneen soxna yi bu leen xool bët soxnaay kisraa ya ñooñu duñ seeni nawle bu leen xool bët soxnaay xaysar ya yooyu duwut seen nawle xam nga léeg-léeg jigéen xool bët koo xam ne sax duwut nawle te moom du ko yëkk tax ñaareel jigéen ñi ku ci yàqule rek xool bët wala jéem a toppandoor koo tolloowut mbagg da lay indil problème wala koo xam ne yéen duwul duwul sa raasoo duwul sa waasoo nga bëgg nga bëgg a tabaarakallaaw bëgg koo roy da nga yàqule day am léeg-léeg nga takk soxna fii yóbbu ko bitim réew muy dem di doxee bëgg a doxee ne noona bëgg a waxeen waxeen noona bëgg a dund dund ñooña day am problème su boobaa tamit kon foo mën di nekk da ngay xool fa nga bàyyeekoo ñooña nuñ meloon nga jéem a mel noona waaye nag sensé bi nga sensé milieu bi bu mu tax nga foog ne yow ci milieu boobu nga bokk waaye loolu day dal ñu bëree bëri ñu yàqule ci léeg nga takk soxna yóbbu ko fere ci moom defal koy kayit mu dem ba foofa jàmbu la dem gis geneen góor topp ko wala mu dem toppab liggéeyam ba yàq ab sëyam loolu moodu moodu yu bari ñu may dégg ñu ngi koy xam moo tax saanam am na ci ku ci mos yóbbu jabaram ba mu ko yóbboo foofa yaa ba mu wàcc ci réew ma rek sant yàlla jabar ji ne yaay maa ngi sant yàlla waaye yàlla mi ma indi ci réew moo xam ne maanaam jigéen fi ilif góor yàlla mi ma indi ci réew moo xam ne jigéen ñaa ilif góor ñi man de sant naa yàlla waaye tamit jëkkër ja def man ma ndax koo naxa ndax ba indiwaat ko Sénégal ba muy wàcc ci aéroport bi rek ne man tamit maa ngi sant yàlla bi ma yàlla dellusiwaatee ci réew moo xam ne góor ñoo yilif jigéen ñi waaw ndax li ko mooy maanaam musiba am te loolu day am ñi may déglu ci Europe wala ñi may déglu ci Amérique soo bëggee am problème rek laalal jigéen wala nga laal xale ñaar ñoo fa ëpp pouvoir mooy góor mooy jigéen ak ak ak maanaam ak xale léeg-léeg nga sëy sa jabar ngeen am problème mu yóbbu la ci yoon bu la yóbboo ci yoon yow mu jëloon appartement bi andi ko fi jëlee ko Sénégal yow la ñu génnee appartement bi terewut soxna sa dëkk ca moom ngay fay appartement ba wala nga am ak problème soxna si ba ngeen teqali ko ñu ne ko ñu ne doom seen seen yaay moo leen di yore ba ñu mësoor waaye dañu dogal yow li ngay fayeeku ñu dagg ci loo xam ne weer wu dee nga joxe ko loo xam ne carrément lañ lay laaj ci dundab kenn nit bu doon Sénégal fi mën naa dundal juróomi nit bu ko defee tamit doo ca man dara weer wu dee rek nga ñu dagg ko kesal sosal du nga dem yóbbu ko moo tax kon nekk gi nga nekkoon fii di dund loola ak li nga dund fii dem foofa bu mu tax nga nga soppeeku loolu tamit maanaam nekkul lu baax yàlla nag ne kon yéen yo soxnaa yonantu bi xool leen seen bët yi soxnaa yonantu yi leen jiitu woon waaye bu leen xool seen bët yi ci buur yi àdduna bi ak seen soxna ya nga xam ne nu seen jëkkër ya mel ñu bëgg koo mel bëgg koo doxee bëgg koo waxee bëgg koo jëfee su ko defee bëgg a naawaale ci seen i mbagg bëgg bëgg tiim nit ñi di leen indil problème loolu tamit yàlla santaane santaanewut ko moo tax Omar ibn Abdul Aziz buur bu maandu la xoon keroog ba mu faloo nekk amirul muminin li mu njëkk def fekk jabar ji soxna si dafa amoon yëre yu bëri yore ay takkaay mu ne ko damay bañ ñi ma jiite xeeb ñu ndax boo melee yow jigéen jii melokaanoo ñi nga xam ne jigéen ñi ma jiite meluñ noona rek dañuy foone lu ma am yow laa koy jox dem nangul yëreem ya jël takkaayam la yëpp jaay ko yokk ko ci biir seen réew mi di ko dimbalee fuqaraaw yi ak miskin yi moo tax kon bu sa jëkkër di kilifa nga man ko wala nga ci ak noo ko mën a doxalee nanga nga xaw a teggi sa tànk ndax am na ci yoo xam ne boo ko defee rek dañuy sa kilifa nga foog yaa ngi defar fekk yaa ngi yàq lu bëree bëree bëree kon gis nga loolu yàlla da koo njëkk rek la ci kër si kër Sayyiduna Muhammad door a wàccee nag bal bi ci suuf su ko defee kenn ku ne mën cee dégg sa bopp bi ki tegu tamit mu ne bu ne yéen soxnaa yonantu bi fala taxdaana bil li bu leen di nooyal seen kàddu ndax am na ci jigéen góor ñoo xam ne sooy wax ak ñoom ci ni ngay nooyeelee sa kàddu rek ñi am luñ yëg ci seen xool commencé la tàppaas ndax mbir yëpp nag relation góor ak jigéen yëpp mu ngi commencé ci muuñ mu xool la nga xool ko ngeen muuñ bu ca ëllëg saa ngeen wax bu ca gannaaw ëllëg saa ngeen joxante rendez-vous ba ba ca teguwaat ngeen dajee bu ngeen dajee mooy am bu mooy amee ëmbu am borom xam-xam yi ñoo koy wax dañu wax ne fëbti saamun mooy jiitu fa kalaamun fa mawidun fa liqaawun bañ ca yemee nag ma ne fa si nan fa xam lool loolu moo cay tegu rek mu jeex dafee kon mbir jigéen dafa war a am caractère ci boppam waaye warul nekk koo xam ne ñetti baat ñeent rek du sa jëkkër du sa dara nga nga nga nga ko sa xar-xaram yaatal ko ci di wax di ree muy jël sa kàddu yi di ca bànneexu jaaree ca ba yab la ko tamit baaxul kon yàllaa ngi wax ak suñu jigéen ñi ne bu leen bu leen jaay seen bopp ci wàllu góor ñi ci seen wax ne seen wax dëgër te muy suufe bu leen bu leen bu leen bu leen jaay seen bopp ci wàllu seen comportement ci ni nga comporté woo ji góor góor góoru yambar gis la ca ba yab la bu ko nangu waaye tamit ci ni ngay doxee ak ci ni ngay soloo yooyu yëpp maanaam góor gu bon mën na caa jaaree ba yab la waaye jigéen goo xam ne day sol yére yu jot xar-xaram ba rek feeñ ca ténk ya yére ya jot boole kook yaatu fatt muy wax nànk xar-xaramam bii du jàkkaarloog sax jàmbur di ko ko wan kooko genn góor du ko tappaas te kooku bu néew bu dooleem néewee ba mu wala mu dugg tata xale bi góor bi gën a doy waar mooy jug ne ko meer kaay toog fii wala sama yaay wala sama mag kaay fii waaye su fekkee da ngay génn sa kàddu ya baaxut yiwut li nga sol baaxut li nga comportement baaxut su boobaa xale bu góor boo dajeg ci car rapide bi moom du day day xelaat day xelaat kay nu mu la jege waaye du la wax kaay toog fii ba yowmal xiyaam kon loolu musiba la kon lépp ci doxin wi lépp ci waxin wi lépp maanaam ci jëfin wi yàlla ne kon tamit wala tabaraj na boo déggee mu ne bu leen peer njaayu lim ci namm bu njëkk ba jaahiliyatul ula jaahiliya ñetti xaaj la jaahiliyatul ula dafa am jaahiliyatul wusta jaahiliyatul uxra jaahiliyatul ula mooy diggante aadama ba noox bi aadama génnee àdduna ñi fi bàyyi woon ci sëtam yi ñoo nga colaay gu bon googa heg seegul sax Sénégal koo xam ne day jël yére bu seer xar diggante fi nga xam ne baat bi dugg na rek mu xar diggante ba ci suuf du sol dara génn ak moom di dox awraam di feeñ loola moom lañ daan doxee di ko deree ci aadama ba ci noox jaahiliyatul wusta nag mooy ci noox ba ci yonentu yàlla isa jaahiliyatul uxra nag mooy bi yonentu bi demee colaa yu bon yi feeñ ba ba yowmal xiyaam ba at mu jot rek wala jamono gi jot rek colaa gën a bon ba yonent bi daan toog ba ci kanam mu ne ñaar sama xeet wi safara lañ jëm mais gisaguma leen kaasiyaatun aariyaat lañ benn xeet wa mooy dañuy solu ba pare rafle ñu ne ko lu sol ba pare rafle moo ne jënd yére yu cher te mënul sàng sa awra rafle nga yére yoo xam ne fanweeri junne ñeent fukki junne juróom benn fukki junne ñaar fukki junne sa tànk yaa ngay feeñ sa jumbax baa ngay feeñ sa gannaaw gaa ngay feeñ te noonu nga ko bëggee sa jëkkër mi la ko gënal noonu la ko bëggee yow su boobaa waddu nga waaye tamit rafle nga yonent bi nee nañu sama xeet wi lañ bokk waaye gisaguma leen bu ñëwoon Dakar dana leen gis fu ñëwoon tey dana leen gis beneen bi mu ne ñeneen ñi ay yar la ñu yor di ko dóor nit ñi di leen fitnaal di leen gundu sama xeet wi lañ bokk gisaguma leen bu ñëwoon dana leen gis waaye ba muy wax jigéen nga tamit mu ne jigéen googa tamit day de am lu ñuy jël seen bopp yi di ko teg mu mel ni ñu nag di yëngatu di di di di yëngatoo ka def lu nekk loola nag mooy gerefaas yi amul leneen amul taawil létt yi ñu jël di ko jël seen bopp yeeg gerefaas yi ñu monteeg yëpp loola ca la bokk ndax lislaam dafa xaraamal jokk jëmmi jokk rek xaraam na yow même bu daganoon da nga ko war a muur loo ciy jokkati comme da nga ko war a muur kon ko jokkee rek xaraam na nga feeñal ko nit ñi xool ko xaraam na moo tax yonent ne waxaan laana allahu alwaasila wal mustawsila jigéen giy jokk ak ki koy ñoom ñaar ñëpp yàlla rëbb na leen te yenn meesu yi boo ko xasee mees boo jàppee du tooy boo jullee xamoo julli boo amee janaba sangu du tooy boo sangoo amoo janaba boo boo jullee amoo jana amoo amoo julli janaba nga rek kon su ko defee yeneen gerefaas yi ñuy teg yëpp jëm mu teg xaraam na ña koy tegle xaraam na gi nga koy feeñal di ko doxee nit ñi di xool xaraam na yére yu bon yi nga xam ne ñu ngi koy génnee ndakaaru nit ñi di ko xool loolu lépp tamit dafa xaraam mu nekk loo xam ne dañ koo miin ba mel ni xaraamatut su ko defee kon nag yooyu ñu bàyyi si xel ngeen teg seen waxtu seen baaraam foofu waxtu wi dab nañu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa yàlla di wane ne jigéen bu bañee ñàkk personnalitéem bu bañee ñàkk dignitéem bu bañee ñàkk palaas bi ko yàlla jox bu muy xoy góor ñi ci kàddoom bu mu leen di xoy ci colaayam waaye tamit bu mu leen xoy ci comportement am jigéen bu waxee nam war a waxee solo ni mu war a soloo comporté woo ni mu war a comportement yee benn góor ameewul ko fit ba da koy ñemee tàppaas waaye ñett yi nag bu mu ci mànkile góor gu bon jaaree fa tàppaas ko ba yàpp ko jaar ak moom fu yàlla bëggul yonantu bi bëggul ko amul kenn ku baax ku ko bëgg te loola tamit lu koy yàqal lay doon muy ak mooy kon yàlla ngir tëj buntam mooy moo tax muy fàttali jigéen ñi ne leen ñetti bunt yi feeg yéen a koy tëj rek góor du am benn bunt bu muy jaar beeg si ci yéen na seen wax yi yiw na seen colaay yi yiw ngeen comportement comportement bu yiw dee leen sax ci seen roon waajur yi bañ di génn ci lu dunul farata te booy génn di liggéey wala ngay doxi soxla bu mu la fàtteloon a jigéen nga bul ko fàtte ci sa wax bu ko fàtte ci sa colaay bu ko fàtte ci sa dox bu ñetti xasee am rek benn jigéen benn góor mënul koo amee fit ba am fu muy mën a jaar ci yow te góor ñu bon ñi bu dara desul lu dul fo jigéen gu bon rek lañuy wuti waaye bu dara desul lu dul dëggal muy takk nag ku am kilifa déglu say sa say say kilifa dañ lay yóbbu ci jigéen ñu baax ñi pour nga takk leen kon nag jigéen yàlla da ko jàppe muy or jàppee ko muy jamaa jàppee ko muy wurus su boobaa nag bu bëggee ñàkk xayma yooya na wanteer boppam bu wanteeree boppam rek wàcce ci wurus ba daanu ci weñ gu ñuul wàccee ci jamaa ba daanu ci përëm wàccee ci or ba daanu ci lu kenn mënta wax su ko defee kon jigéen du foye boppam jigéen du jaay boppam te dafa bokk ci jikko yi gën a yées lu ñuy tuddee ak moy muy ak njaalo bari lool ci jamono bari lool ci mag ñu xamul seeni bopp bari lool ci jigéen ak i góor yu xamul yu amul kilifa te njaaloo gor musu koo def gor bu baax même boo dunul jullit ngay gor rek doo njaalo njaaloo waral waraloon yonantu bi ba jigéen ña defee délégation ca Safa di jaayanteeg moom pour dugg ci lislaam ba mu yegg ceeg ñoom ci wala yasriq na wala yasni na ba mu yeggee ci baatab yasriq na hind mi jabare abu sufyaan ne ko attention dama lay laaj sama jëkkër abu sufyaan ku nay la su ma joxee dépense bu doyul ma jël ci xaalisam yokk ko ci dépense bi ndax danaa ci am bàkkaar ndax loolu sàcc la yonentu bi xamal ko ne su fekkee ne de dalaa wax ne la toggal lu doy wala jëlal lu doy luy doy kër gi su boobaa bu la nattalee loo xam ne dafa manqué matul sañ ngaa wut lu ko mottali ci loola comme lim la jox doyut waaye su fekkee ne nag moo la nattal boppam ba takk saako wala mu yëkkati dépense bi rek la ko ba jox la xaalis ba ci lii wékk yëreem amuloo droit dugal sa poos ne yaa ngi cay dolli loola moom sàcc lay doon toggal ko lim la jox rek. mu ne ko nag ba mu yeggee ci walaa yës dina li ko hindu wax dafa ne ko awa tës nii ndax gor dana njaalo. doo gudd julli sax waaye dafa na ko ndax gor dana ko def kon jàpp na yow bis boo demee bay njaalu rek delloo nga sa bopp ci njaam ñaareel bi tamit jikkooy bàyyi ma la njaaloo ku koy def yaa ngi delloo sa bopp ci mala ndax mala mooy rab woo xam ne ku ko neex fu ko neex looloo waral bi nga moyee yow mi may déglu charia ne nañ la teg li ñuy def bàyyi ma yi su fekkee ne amaguloo soxna góor nga jigéen nga nañ la caw téeméeri yar su fekkee ne mos ngaa denc wala ñu mos denc nañ la gasal pax dugal la ci sotti lay xeer ba nga dee su ko defee kon ndax da nga jëf jëfi mala jëfi mala nag bu woyofee ñu dóor su fekkee dafa diis ba ëpp ñu ko njaaloo tamit bokk ci ku koy def mënuloo mukki ki juróom benni mbugal yonum too ko wax ñett ya àllaaxira àdduna la yeneen ñetti ya àllaaxira la mu ne kuy njaaloo yàlla nattoo la fan wu gàtt kuy njaaloo yàlla nattoo la wërsëg wu xat kuy njaaloo yàlla ñëkkal sa xarxaram du am leer ñett yëpp àdduna la loolu nag lu ko jar yu àllaaxiraa ya mu ne kuy njaalo mënoo mucc ci dugg safara ñaareel bi mënoo mukki ci béel fa mënuloo mucc tamit yàlla jéppi la ku la tudd rek yàlla ne ko bu ma ko kenn waxati wax waxatuma ay mbiram ndax yonentu bi ne danañ toog moment boo xam ne safara day ubale ci xet gu xasaw waa safara yi naan waaw safara tey moom xasaw na di lu waral li malaaka yi xamal leen ci ndigalal yàlla ne leen awraay njaalokat yi la yàlla wax ñi lakk ko ñu góor ñaak ñu jigéen ñi doon ànd ci lu duhul ndigal yàlla yàlla wax ne nañ jël seen awra yi sotti ci godoron lakk ko moo waral tey safara ubale di xeeñ yonentu bi mos naa toog jibril ñëw ànd ak moom wan ko genn kàmb xootaay ba ci biir kenn xamul ni mu toll waaye yaatuwaay ba tamit ku ca dugg doo mën a génn ñu ngi ca boole ay góor ak i jigéen di leen sotti godoron di leen lakk mu ne ko ñii nag mu ne ko ñii ñooy bokkoon sa xeet bi daan njaalo kon njaalo jikko ju bon la bari na nag ci ji jamono xale yu bëri amuñu kilifa dañuy jàng ekool lañ koy commencé nekk ca loola góor ak jigéen ña nekk ca loola ba nekk mag taamu ko léeg léegi nga taamu ko am jabar nga yore ñaar wala ñett wala ñeent lu tere tamit tabaarakallaahu yaa ngi ca loola rek te saa yoo nekkee kuy njaalo yàlla du la dana la nattu sa njaboot njaalo benn sa jabar wala lu soqeekoo ci yow moo tax yonent bi daan wax ne fegu leen re bu ngeen fegoo seen jabar yi fegu kon boo nekkee góor te doo fegu na la wóor ne sa jabar feguwut boo nekkee jigéen feguwuloo tamit na la wóor ne sa jëkkër feguwutul kon yàlla nag mi ngi tëj buntu booba ba tax maanaam mu bëgg a wax ne jigéen bu mu koy góor ci kàddoom ndax jigéen góor ñu bari dañu feebar bu ñu déggee kàddu jigéen te dañ ko war sa déggee rek teqalikoog seen sago mu ne tamit yéen yéen jigéen ñi bu leen koy góor ñi ci seen colaay yu bon yi nga xam ne tabaru maanaam tabaru ga jaahiliyatul uulaa la woon ca jamonoy aadama ba ci noox ñoo ko daan def ndax aadama ñaari seex la daan am njabootam gi dañoo dëkkee woon beeñ geneen njabootam gi dëggee dëkkee doj yi ci montagne yi ñu dëkkee beeñ nag ñoo gën a rafet lool waaye ñu gisante benn bis nag Iblis tëgg benn concert yi musiciens yi tëgg léegi nag seen ñaari njaboot yee dajee ba ñu dajee colaa yu bon ya foofu la commencé xew ñu commencé am rapport góor ak jigéen njaaloo commencé foofa su ko defee nag euh, maanaam jaahiliyatul wusta mooy li ko doree noox ba ci sayduna muhammad jaahiyatul oxra nag mooy li feeñ ci mbon ci xeetu yonentu yàlla muhammad jamono ju nekk colaay gu bon di gën a feeñ jamono ju nekk góor ak jigéen tabaarakallaahu di mooy ci loo xam ne yàlla gërëmut ca dara te maanaam loola nag bunt yooyu la yàlla bëgg a tëj nag moom lay wax si nii ak niñ ca war a bàyyi xel ak maanaam niñ ko war a soree moo tax mu ne yaa nisaa annabi yéen soxnaay sayduna muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam lastun na déet yéen ka ngeen mel ni ki mbooloo mi na nisaa yi ci jigéen ñi yéen ak mbooloom jigéen ñi ngeen di gis du leen benn de init taqaytu na su ngeen ragalee yàlla yàlla dana leen jox payoor gu rëy rëy mu xasaf ko li ci mën di am nag istinaaf la mu ne falaa tax dax na bu leen nooyal bil li ci wax falaa tax dax na bu leen xoy góor ñu sàggan ñi bil xawli ci wax bu loolu amee fa yatmaa sabab soosu dana xemeem alladi góor da nga xam ne fii qalbihi aji nekk la ca xolam ba maradun feebaru jigéen maradun ak nifaaq su déggee baatu jigéen ca na muy waxee te koo waxee rek moom ca saasa moom taqalikoo naag sagoom ba yàlla ne kon waqul na wax leen xawlan wax maarufan ju rafet wax ju njëkk joo xam ne kersa moo ko lal dignité moo ko lal mbaax moo ko lal waqar na sax leen yéen jigéen ñi fii bu na ci seen néeg yi jigéen bu bañee yàqule na sax ci waa waajuram yi bañ di génn su génn mënta ñàkk ci liggéeyi wala ci jàngi bu ko génn ga fàtteloon a jigéen la comme ni doomi yonentu yàlla Shuaybu ya bañ ne wa abuna shaykhun kabir ñi dem di liggéey yi xam ne mënta ñàkk jamono rawatina bu jamono méttee ba kër ñi war koo sot waaye ñoom seen colaay ga na seen wax yiw na nañ doon doxee yiw na yaa ngi dégg alquran ne tamshi ala in jigéen gaa ngay dox waaye ànd ak kersa ba loola kon fàttali ko wut ko la mu donoon waaye léegi jamono ji jigéen bu génnee këram takkaayu génn da ngay wax ne xanaa kii dafa am combat day bëree ji wala déet wala nga laaj ne ndax kii est-ce que ci kër nit la génnee wa léegi-léegi nag mën naa génne ci kër kilifa goo xam ne kurus gaa nga gudd mu yore kaamil doomam sol lu bon romb ko jaayi boppam ba fajar jot ñëw jox ko mu def ko dépense di ko ñaanal bay dem ca jàkka ja di ko jox loo dog te la muy ñaan ak la muy lekk xamu ca dara safara rek la koy bijjal ñu ci bëri seen doom yi moo wóor na leen ne teguwuñ ci yoon muy góor wala jigéen waaye ñemewuñoo ñàkkanteeg ñoom ngir intérêt bu ñàkk solo bañ leen di jox rek mu bëri lool moo tax yàlla ne waqar na sax leen fii bu yootiku na seen néeg yi wala tabaruj na wala tabaraj na bu leen di per njaayu tabarujal jaahiliyati kem peer njaayu jaahiliya ulaa bu jiitu ba te aadama ba ci noox wa aqim na na ngeen taxawal salaata julli wa aati na na ngeen joxe zakaata asaka wa atix na na ngeen topp laaha yàlla wa rasulahu ak yonantoom bii di seen borom kër innama yuridu daal dana namu laahu yàlla li yuthiba ngir na demee ankum walis leen ariji sa bàkkaar ahlal bayti yéen waa kër yonantu bi di ay soxnaam yàlla dafa bëgg bu leen am bàkkaar wa yutahirukum mu laabal leen tathiran ak laabal goo xam ne gu set wecc lay doon kon lii bu ko yàllay wax ak soxnaa li muy tekki mooy mi ngi koy wax ak suñ soxna yi rek soxnaa yonantu yi seen colaay yu yiw na mosuñoo sol lu yiwut kon bu leen soxle sol leen colaay yu yiw dafa bëgg a wax ne yéen sama jigéenu xeet wi su ngeen bañee ñàkk seen personnalité dee leen sol colaay gu yiw ba benn góoru yamba du leen tàppaas buy wax ne waqul na qawlan ma'rufan loolu ci la soxnaa yonantu ba dëkk kon dafa bëgg wax ne yéen sama jigéeni xeet wi na kàddu yi yiw tey kersa ak mbaax lal ko buy wax ne maanaam wala fala wala tax dax na bil xawli bu leen di xoy góor ñi yéen soxnaa yonantu bi lim ci namm mooy yéen sama jigéen ñi xeet wi bu leen di xoy góor ñi ci seen kàddu yoo xam ne ni yiwut sax leen dàq di julli julli nga dox seen digganteeg lépp lu bon sax leen dàq ci joxe asaka ku ci am lu mat nisaab topp leen yàlla ta ngeen topp seen borom kër yi yàlla lim bëgg mooy yéen jigéen ñi bu leen ñàkk seen dignité bu leen ñàkk seen personnalité ndax ngeen mën a teqali koog su ko defee fi leen yàlla tegoon ngeen mën faa tege kon lii yàlla digal soxnaa yonantu bi te ñu moom ko soxna yi may dégg moom ko boroom kër yi may dégg moom ko ku ci jaarale sa doom sa kër jag su ko defee tamit li nga doon dàkk nga mën koo jam fi nga bëggoon a yegg tamit nga mën faa yegg waaye nag jigéen gi gën a bon gën a yées mooy jigéen guy jaay boppam tabaarakallaahu ak la cay mën bi juddoo léeg leen nga gis ci xale bu war a am avenir tollu ci jàng ca loola muy foye boppam ba mujj trompe ko at mooma du mujj jàngati meneen at ma ca tegu day nàmpal dootu mujj jàngati kooka mujj na yàqule te ka ko koy def boo toppee tànk ya mënu koo ngénte léegi-léeg mu def ko ba pare jàllale bi ko daw daw res ne defu ko su ko defee tamit kooka am gàcca mbokkam yi am gàcca mu yàqaaw askanam boo lëgee mënta waxati dara te lii may ñi may déglu ñu bari tey kaabi dal na leen mu mu dal seen njaboot ñu am gàcca maanaam personnalité bi ñu amoon ci seen koñ seen i lépp ñu mujj ñàkk ko te ñu leen ko yóbboo xale yu yu amul kilifa jëmuñu fenn ku defee kon déegu ñaaw gi yëpp njaalo gu bëri gee ko waral déegu bëri gi tamit loolu rek moo ko waral yonent bi daana wax ne saa yu mooy mooy ak góor jigéen bëri rek dee bëri saa yu mooy ak góor jigéen bëri rek feebar bëri te feebar yay am bokkutoo na ya ngeen xamoon kenn du ko mën a faj médecin boo dem mu ne la mënuma ci dara wala mu xool ne gisuma dara te yow teqalikoo ak métit yaa ngi bëgg a dee nga dem ci fu nekk fekk na li ngay def lépp lu bon la nga defoon moo mujj daanu ki sa kaw ndax jigéen goo xam ne la muy sol bu la rombee ngay góor gu sàggan xool ko ba xool butitu njuréelam mu dem dugg ci néegam sa yàgg fa fu muy jëlee doom doom ya nen ya waroon a am doom ya dee nañu bëtul nit ñi ko doon xool bay xool lu bon la muy sol rey nañu ko ba dootul dootul mën a amati doom loolu mu nekk ci tamit dama feebar sama bopp bee métti nangam ak nàngam jamono ji nag li gën a bëri mooy faru rab yi ci jigéen ñi ma ne dara warulu ko mooy jigéen ñee niru rab rab ya tamit ñoo def leen far jigéen gi ci solu peinture xar-xaram am moonte ay xef kenn xamul lu muy niru rab rek lay niru su boobaa tamit rab yi day foone faram la rek xale yu góor yu bëri tamit niru niru rab ci la ñuy sol wàccee seeni tubay kenn xamul lu ñu niru ñoom tamit faru rab yu jigéen ñi ñëw ñuuxu leen moo tax léegi fukki jigéen yoo gis juróom-ñaari yëpp dañoo ànd ak faru rab xale yu góor yoo gis fukki yëpp juróom-benn yi ànd nañoo faru rab lu ko waral nit ñee niru rab te ina ina tuyura ala asnaafiha taqaw la yaaram yi wax defee kon nag loolu jar naa bàyyi xel aaya yi tegu ci yàlla ngi fàttali soxnaa yonantu bi teraanga yu rëy yëm leen defal teraanga ja mooy aayaay yàlla yi di wàcc ci seeni néeg ndax yonantu bi amutoon néeg soxnaa mi ku aye rek mu dem sa néeg waaye moom dund na ba génn àdduna waxuma la kër waaye néeg sax xamu ko kenn du yonantu bi sallallahu alayhi wa su ko defee ne sa néegi soxna ya lay aayay wàccee loolu teraanga ju rëy la te néegi soxna ya tamit ci lay xadis ya di bàyyee ko muy tasaaroo jëm ci xeet wi ba yegg ci ñun yàlla ne yéen soxnaa yonent bi teraanga ju réy jooju ma defal leen bu leen ko fàtte moo tax mu ne waskur na fàttaliku leen maa la nga xam ne yut laa def na jàngatal ko fii bu buyootiku na ci seen néeg yi min ayaati laa ci aaya yàlla yi wala mati ak sunnaa yonent bi inna laa naka yàlla kaana naka jekk latifan ñu intihaa kon la xabiran ku dañ kumpa teraanga juree ji yàlla defal leen du ngeen ko sante yàlla toog aaya bàyyi ko ci asamaan jaar ci jibril ñëw ci yow fu mu ñëw sa kër fu mu ñëw sa néeg fu mu wàcc ci sa lal loolu teraanga juree la mënoo koo paase. kon nag jël leen teraanga juree ji man leen a jural njëriñal àllaaxira man leen a jural njëriñal àdduna te ngeen bañ a sonalati yonent bi keroog ba yàlla ne na fii na benn soxnaa yonent bu baax bu ñu tuddee sawdatu bintu samaa moom ci la commencé génnatul néegam même julli juróom yi sax néegam la koy jullee julli jumaa sax néegam la koy jullee mu ne yàllaa wax ne waqar na fii buyutikunna kon man sama néeg du ko génn beneen bi tamit mu ne bañ ne euh, aj màkka mu ne du ma aji yàllaa ne nañ sax ci suñu néeg moo tax xulafaaw yi toogoon ku ci yàlla teg ci xilaafa gi rek nga am doole yóbbu lenn ki soxnaa yonantu bi ñaar léeg-léeg nga yóbbu ñett léeg-léeg nga yóbbu ñeent waaye bu ñu bëggee yóbbu ba yegg ci sawdatu rek mu na fii buyutikunna man fenn fii laay toog moo tax lépp ci fuqaaw yi ne jigéen ñetti yoon rek la war a génn kañ bu juddoo ñu ne nañ ko génnee ci digg kër ga tudd ko dellowaat ko ca néeba ñaareel ba mooy bu demee ba mata am jëkkër ñu gis ko fekk ko foofa ku ko bëgg bëgg ko def ca moom la mu war a def ca moom nañ ko muur yóbbu ko kër jëkkëram ñetteel ba bu génnee àdduna nañ ko génne yóbbu ko ci armeel ya ñett yi jigéen gu ca ne doo am problème bu demee ba ji génn nag mënta ñàkk ngir li jamono ji li mu laaj kër dafa métti courant beeg ñeenti es yi foog jëpp jàpp ci facture Sones Senelec Sonatel saako ceeb bu ñu ko bàyyee góor ñi du sotti na ci góor ñi jàpp jigéen ñi jàpp ci xale yi jàpp ci jarbaat yi jàpp ci su boobaa nag jigéen nga buy dem di ma ngay liggéey ca bureau wala ma ngay liggéey ca marché ba wala ma ngay liggéey fu mu mën a dem bu mu ko fàtteeloo waaye na jigéen la ci colaayam ci waxam ci jaxasoom ci nekkinam ci yeneen ak yeneen ak yeneen waaye boo toogee ne yaa ngay liggéey koo xam ne sa liggéey waaye la sa collègue la xaw ma ñëw dend ak yow jël lex teg la ko nga teg ko sa lex bi fàtte nga ne jigéen nga wala léegi-léegi mu ñëw toog sa kaw wala léeg nga ñëw toog ci kawam wala léegi-léeg ngeen lëngante yow fàtte nga ne jigéen nga ku mel noonu da ngaa war a toog sa kër waroo dem fenn waqar na fii buyootiku na yal na yàlla fayal nañu sun maami leer bu ñu naan tuddee alxaaji abibu sàll dimisqa dafa yaroon jigéen nam ñu ba duñ génn ci biir kër gi la ñuy toog duñ génn ba jëkkër fekk leen fa ñu door a génn am na ci koo xam ne keroog bañ ko muuree dafa ñëw ba ci pénc mi mu ne may leen man xaw maa muur yi ma xool sama jumaayu papa ji dem na ba màgg te mosul gis jumaayu papaam nu muy mel loola kon lu ama am solo la waaye bi bi jigéen ñi xewee léegi ñuy fanaan àll ñu nekk ca concert ba ñi nekk ca baal ba ñu nekk ca nàngam ak nàngam lu leen neex nekk yi jigéen di way taxaw ci digg maanaam podium yi ñi leen way di leen di sànni ay caabi oto ñi leen di may xaalis ñi leen may nangam ak nangam ñu fa ne loola dara la te buñ xamul lam leen a jural wallahi ñu bàyyi ko tuub dellu ci yàlla kon yooyu yëpp jar naa bàyyi xel aaya yi tegu ci nag ñaareel alquran dafa bari lu muy tudd góor ñi jigéen ñi def délégation si soxnaa yonent bi ak ñeneen ñu dul ñoom nag umu salmata moo leen jiite woon mooy seen porte parole seen syndicaliste boobu moom moo ko jiite woon mu ñëw ne waaw yow yonent bi xanaa ñun jigéen ñi dañoo amul benn darage ci yàlla ba tax na yàlla moom góor ñi rek góor ñi rek lay tudd est-ce que ñun suñu julli yi ak suñu woor yi yàlla dana ko gis sax yàlla daal damaa foog ne faaliwul ñu parce que ñun daal lim tudd ñu dara ci alquran ah léegi nag ci la yàlla wàccee aay ji tudd fukk fukki góor ci melokaan tudd tamit fukki jigéen ci melokaan parité yi gars yi coow fii la parité nekk ndax bu yàlla tuddee na innal muslimina wal muslimaati ba ca wa zaakirina laaha kasiran wa zaakiraat parité ci góor ak jigéen daal mi ngi yem ci wareef ak yelleef wareef mooy lépp lu ñu yàlla sant ñi war koo def góor ak jigéen a ca yam góor ñi war nañoo woor jigéen ñi war nañoo woor amul ñu ne parité foofu na góor ñi fan fanweeri fan jigéen ñi fukki fan ak juróom amu fa jigéen ñi góor ñi war na nañoo aji màkk jigéen ñi war nañoo aji màkka ñaareel bi góor ñi war nañoo julli jigéen ñi war nañoo julli amul ñu ne parité nga góor ñi def ñeenti rakkaa maanaam jigéen ñi maanaam def ñaari rakkaa foofa maanaam kon parité amu fa ñëpp fa bokk yemle su ko defee tamit yeneen yi bu góor mooyee téeméeri yar kon mosu guñ koo mësta denc bu jigéen mooyee téeméeri yar kon mosu guñ koo denc foofa tamit parité moo fa nekk ñëpp tolloo fa su ko defee kon nag melokaan yi muy wax tamit parité moo fi nekk waaye nag yàlla ba mu ne ñoo tolloo ci wareef mu ne tamit ñoo tolloo ci yelleef bu góor defee la ma koy fay bu ko jigéen defee tamit laa koy fay du ma seet ne góor a def naa ko fay 100 pour cent jigéen 50 pour cent amul kooru góor kooru jigéen ñoo yem payoor fa yàlla jàng alxuraan ci góor jigéen ñoo yem payoor julli ak góor jigéen ñoo fa yem payoor waaye ànd ak loolu lépp nag yàlla nee na nag duñ benn yemuñu lu tax mu ne wala da zakaru kal unsa yemuñu lu tax góor ak jigéen ñoo fi ne ñoo meññ àdduna bi mais première matière bi yàlla njëkk a bind la cay soqee ko door caa soqee koo góor la première matière bi yàlla njëkk bind ci àdduna mu nekk nit pour war a meññ nit ñi ko góor la woon alquran a ko wax yaa ayuha nnaasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida nafsu waxida mooy aadama wa xalaqa minha zawjaha nag deuxième matière bi génnee ci moom ñu bindee ko ca faar ba moo tax nag góor mu nekk première matière moo àttan nu bu watu jigéen ñi lu ñuy bëri bari benn yàlla yàlla mosta yónne benn yonantu ñu ne jigéen la mosta am wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuha ilayhim ñaareel bi tamit jigéen mi góor mi première matière moo attan imaamatu moo war a jiite ci fiq ci fiqhu malik ak ci fuqahaa yu bëri jigéen matul ilimaan du julleeg farata du julleeg naafila du góori kese du jigéeni kese ña cay wax ak a néew mooy ci julleeg niiw te loolu du mazhabu malik loolu lañ say wax waaye taxam ñoo boobu julleeg ñëw li gën rek mooy julli ñëw dem keneen julli dem comme nañ jullee woon yonentu ba su ko defee tamit kon maanaam moo tax yàlla wax yonentu bi wax Maryama ne ko yaa Maryam uqnutii li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raaki'in julli ca gannaaw góor ña waaye mu ne ji góor mënul jigéen matul ilimaan ci julleeg farata du la du jóori kese du jigéen ni kese du buñu leen boolee ñoom ñaar njëkka tamit xutbaaniyatul uzma buñ ko laajee Cheikh na Tidiane ne na jigéen mënu koo doon mën naa nekk siddiqiyatu nag moom la Maryama nekkoon wa ummuhu siddiqatun kaana yakulaani taama waaye kon ñetti yi dafa am doole ba nga xam ne première matière a ko attan muy góor su ko defee nag léegi mu des nag yeneen yi yàlla tamit nee na tolloowuñ lu tax tolloowuñ ci sunna yonentoo jàngale ku rey góor téeméeri gëléem ngay joxe di ku rey jigéen juróom fukki gëléem ana parité ci sharia ya yàllaa jàngale ci suratul baqara lu ñuy war a seede jigéen mat ca seede ñaari góor wala génn góor bu ñu amut yàlla nee na ñaari jigéen a génn góor shahidayni min rijalikum fa in lam yakuna rajulayni fa rajulun wa mraataani lu taxut wa mraatun waxut ko wa mraataani la wax ba tey tamit ci miraas ci yu gën a bari góor ñaar jigéen benn bu jigéen ne man lu tax ñu may jox benn yow yaa ëppale góor gi ndax góor gi ñaar yam am yow la koy joxaat bu la bëggee yaw lay jox can yow lay tabaxal kër nga dëkk fi mooy fay courant bi mooy fay ndox mi yow sa benn bi yaa koy denc man ma am ñaar bokk yow yow nga am benn denc ko yaa ma ci tuuti rek ci ay ay ay masala ngay fekk jigéen ak góor tolloo ci miraas mais bëriwut kon maanaam euh, parité bi daal mooy fii ci wareef ak ci yelleef di des nag yàlla wax ne tolloowuñ boo ci ne mën nga ko indi ci sunna bi nga mën koo indi ci alquran su ko defee tamit yéen jigéen ñi bu ñu leen bëgg a tollalee góor ñi naa lànk leen bu ngeen ko defee perte ndax yéen ay seef ngeen góor ñi nekk ay sang yàlla ne comme yaay sang yow góor gi ñëwal nga sang jigéen ñi yaa ko bëgg mu ne waaw jëlal alal yu bëri nga jox ko ko waajal ko nga wut 2 millions 3 millions def ko ci ndaw si nga ne def naa ko ci ñu ne ko utal ko daay wutal ko maanaam yëre yum sol moom du ko xottil boppam utal ko gànjar ci diggante eh, or ak jamaa ak loo ci am jox ko mu takk nga ne ko wut naa ko mu ne ko yaa koy jëlee kër baayam mu ne waaw mu ne ko yaa koy tabaxal kër même boo amoon këram dem luy ji ko yow nga nga dugal ko sa kër nga dugal ko sa kër yow mu ne la nga utiliser courant beeg ndox mi lu ko ca neex waaye yaa koy fay facture bi moom yoonam newu ci lal bi muy tëdd yaa koy jënd dara waru ko waaw kooka bu ñu ne kaay tolloo góor gi dañ lay nax da ngay perte kon bu leen kenn bëgg a tollale góor ñi dangeen ngeen di perte yéen dañ leen war a defal rek ay seef ngeen da ngeen di fekk lépp pare ngeen ñëw jariñoo waaye bu ngeen bëggee takkaayoo naag góor a jigéen yam ñaari loxoy takk tubay ñaari loxoy takk sër waaye ñaari loxoy joxe dépense tamit bi kon ñëw leen ngeen joxe dépense yi yooyu perte la bu leen ko nangu yéen ay seef ngeen jigéen ñi nekk góor ñi nekk sang sang lañ alquran ko wax wa alfaya sayidaha la dal baab wa sayidan wa xasuran wa nabiyan ne saalihin moo tax alquran fu mu tuddee góor sang la koy tuddee waaye jigéen seef la chef mooy koo xam ne dañuy defar lépp ñëw teg ko ci loxo mu dirise ko di ko doxal seet dépense bi lee doy mu jël ko defar ko ba mu baax seet kër gi lii mooy tax mu war a set mu toppatoo ko seet lal yi ni ñu war lalaatee ak la ca war yëpp mu defar ko loolu kon ku mel noonu bu ñu la kaay tolloo kii war laa lépp nekkal la ci naaj wi nga nekk ci kër gi da ngay perte waaye loolu lépp dañ leen a bëgg a yàqal bëgg ngeen nekk ca loola ba du ngeen topp seen jëkkër yi na ngeen leen war a toppee a ne maag yow benn benn la fifty fifty su boobaa maanaam la nga war a am ci barke na nga war a amee sa doom yi nañ war a mel doo ko mel nga perte kon topp leen seen jëkkër yi yonentu ba muy wax baaraas yi leen tax a dem aljaana waxoon naa la ko démb wa ataat zawjaha ca la bokk topp seen jëkkër yi beneen bi mu ne jigéen ku a doon bu dee gërëm ko dem mu dem aljaana kooku wax na ko kon nag bu leen kenn yóbbu naan parité parité moo tax ma waa ji ne ma ko xanaa karité ngay wax wala bu ko waxati xanaa karité rek moom waaye bul waxati ne la mukk kon nag parité bi mu ngi ci fukki melokaan yeeg benn boo ko ku ci foofu moom ñoo ci yem képp ay wareef la moo tax mu ne inal muslimina naka way jébbaluñu góor ñi wal muslimaati ak way jébbaluñu jigéen ñi wal muminina ak way gën ñu góor ñi wal muminaati ak way gën ñu jigéen ñi walqaanitiina ak way sax ñu góor ñi ci jaamu yàlla walqaanitaati ak way sax ñu jigéen ñi ci jaamu yàlla wasaadiqiina ak way dëggal ñu góor ñi wa ci ci maanaam dëggal nañ ci wax ci jëf ci pas-pas wasaadiqaati ak way dëggal ñu jigéen ñi wasaabiriina ak way muñ ñu góor ñi ci topp yàlla ak bayi mooy yàlla wasaabiraati ak way muñ ñu jigéen ñi wal walxaashiina ak way torox lu ñu góor ñi walxaashiaati ak way torox lu ñu jigéen ñi wal mutasaddiqiina ak way sarax yi ñu góor ñi wal mutasaddiqaati ak way sarax yi ñu jigéen ñi wasaaimiina ak way maanaam xoor ñu góor ñi wasaaimaati ak way xoor ñu jigéen ñi wal xaafifiina ak way wattu ñu góor ñi furujuhum seen pëye ba du ñu njaalo wal xaafisaati ak way wattu ñu jigéen ñi seen pëye ba du njaalo mu xasaf ko wa zaakiriina ak way tudd yàlla ñu góor ña maanaam way wa zaakiriina way tudd yàlla way tudd ña laaxa yàlla kasiran lu bëri wa zakiraati ak way tudd yàlla ña maanaam ñu jigéen ña ñu bari lii de ñu ko def ñi ñu melokaanu fukki melokaanu ak benn ci góor ak jigéen xàmmeehuma fa naan nangam foofu parité fa ne moo waral ahada qaduna laahu yàlla lahum ñeexal leen ca góor ña ak jigéen ña taxlib la maxfiratan ak jéggal wa ajran ak payoor aziman gu màgg de fukki melokaanu góor fukki melokaanu benn yii góor ak jigéen parité la fa kenn xëppaliwut fa kenn ku ca gënam ku ca gën ku ca ku ca gën le wala ku ca man gën ca waaye nag taxaw na góor jigéen xamewul nag ta taxawu terewul nag góor tax yëkkati laal laxoom naan maa gën loolu njuumte la gën moom sànni yàlla la yàlla dafa ne ngëneel sama saan la daw leen ngeen njëkkalante ko yéen góor ak jigéen ku ci njëkk rek yaa ko moom saan woowa jigéen ñu bari njëkk nañ fa ay góor ay ña fa njëkk bëri na ña fa xafsatu njëkk bëri na ña fa sawdatu njëkk bari na ña fa aïchatu njëkk bari na ña fa soxna mariama busa njëkk bari na ña fa tabaarakallaahu euh, maam astu jànq njëkk bëri na ña fa soxna xadijatu caam njëkk bëri na ña fa soxna aminatu ña fa faawaat wala jiitu bëri na kon maanaam ngëneel saanu yàlla la yàlla ne daw leen ngeen njëkkalante ko ku fa jiitoor yaa ko moom saan woowa nag jigéen ñu bëri njëkk nañ fa ay góor waaye saan woowa tamit jigéen góor ñu bëri njëkk nañ fa ay góor kon ngëneel moom foofa yeggun ci ñoo gën moom loolu waxi caaxaan la ngëneel ko ca gën nañ koy xamee ëllëg ca yàlla ndax inna akramakum indallaahi atqaakum loolu nag mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen kon su boobaa loola jar naa bàyyi xel yàlla dafa ne tolloowuñu rek ñàkk a tolloo gi ne wax na ko ci seede ñàkk a tolloo gi wax na ko ci miiraas ñàkk a tolloo gi wax na ko tamit ci nubuwatu ak ci risalatu ak ci xutbaaniyatu ak ci imaamatu waaye nag bu mu tax génn góor yëkkati loxoom naan ñoo gën jigéen ñi loolu perte loolu wax ju yàqu la jigéen ñu bari bëri nañ góor ñu bëri ñu ñu gën rawat na ci jamono ji léeg-léeg nga sëy sa jëkkër te yaa ko man yaa njëkk a yeewu léegi sax léegi-léeg yaa koy fëgg ko jugal noddu nañ salaatu nañ ni muy lijjantee door a jàpp door a mën a julli dem xëy xam nga nekkoon jigéen googu moo gën jëkkëram ñaata jigéen na fi ne liñ ci alquran seen jëkkër mënu ko ñaata jigéen na fi ne ñuy fanaanoo julli te seen jëkkër yay nelaw bay xaran kon nag ngëneel saanu yàlla la jigéen ma na faa njëkk góor ma na faa njëkk saabiqu ila magfirati min rabbikum su ko defee nag loola ko fa njëkk rek yaa moom loola ayaat yi tegu ci yàllan ci nettali sëy boobu ma waxoon la ci Zeydu mi alquran tudd ak soxnaam su baax sa di Zeynabu bintu Umayma ñenn ñu ne Umaymatoo yaayam ñenn ñu ne Maymunatu moo yaayam ñu Safiyatu moo yaayam waaye lu ci mun di am doomi Abdul ñi dañu ne la ñu ne Maymunatu la Zeynabu mooma doomi bàjjenu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la waxoon naa la ko Zeydu di ab doxandéem Hakim ibn Hisaam a ko jëndoon may ko bàjjanam xadijatu xadijatu keroog ba ko sayduna muhammad takkee mu may ko ki nga xam ne mooy jëkkëram di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu yónnee yonantu bi ki njëkk a gëm yonantu ci jaam muy kuñ moom rek mooy saydu moo ko njëkk gëm su ko defee nag moom tamit bëgg gim bëgg yonantu beeg loola nag gëm ko bàyyam yëg ne ma nga foofa benn bàyyi taxam mooy dox ci màkkar a gis ko mu ne ko lan nga mu ne ko man jaamu yonantu bi laa mu ne ko non yow ñun ñooy sa papa dem wax ko papaam papaam ñëw di ko jël si ba mu ñëwee wax wax nag ne ko kii famille bi mu bokk fa mu la ay sang lañ ñu ay jaam yonent bi ne ko bu la tànnee na dem bu ma tànnee des fi de Seydou na tontu bàyyi ja ne ko bëgg naa la lool fonk naa la lool xormaan naa la lool waaye des ci kër sang bi di di jaam moo ma gën a ñëpp ci sa kër di gor yonent bi ku ko lebal ker mu lebal la guddi dootoo teqali ko ker mu jaaral ku ñu tuddee ay man ayman ay man moomu moo doon yaay yonent bi gannaaw yaayam moom nga dégg mu daan wax ne ay ayman ummi ba'da ummi umu man moomu keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àndeeg yaayam yàlla dogal mu feebar war a génn àdduna ci yoon wi ay man moo ko moo ko doon jiital di ko teete di ko indi moo ko moo ko doon yar di ko toppatoo di ko fóotal keroog ba yonent bi takkee xadijatu la ko goreel maa doon yaayu moom la gën a xam ci yaayam ndax moom yaayam dafa gaaw a génn àdduna juróom benni at la am yaayam génn àdduna ñenn ñeneen ñeenti at maatat ummu taaha li arbain aw li sittin juróom benni at ñeneen ñeenti at ci la yaayam génn àdduna ay man na ko yor di ko fóotal di ko toppatoo ba mu xëyee takk soxna mu goreel ko ummu ayman moomu nag la mayoon Seydou moo am ca doom bi ñu tuddee usaamatu léegi nag yonent bi nag doomoo gii mu doomoo Seydou ak teraanga ji ko Seydou defal doy ko mu jël benn doomu bàjjanam may ko ko muy muy maanaam Zeynabu ba mu ko ko ne da ko koy may nag yonentoo ko ko canal yonentoo baax ci surga surga bu bàyyi kër baayam ñëw na yonentoo ma doy yonentoo baax ci moom yonentu bi yemut ci ba mu ko mayee ba mu ko mayee ba ko mayee maanaam Zeynabu moo ko ko canal ba mu ko koy canal jox na ko lu mat fanweeri saa ci tàndarma jox ko juróom fukki mudd maanaam ci ci eh, juróom fukki muddu ci ci ci ci ci ci dugub ci lu ñuy lekk jël ko nag boole kook li nga xam ne mooy wurus ak i ay uux ya jox ko ko ne ko demal nga canee ko soxna si parce que kii comme dafa nekk doxandéem te kii fi mu bokk xuraysiyatu la soxna su foor la kon foog nga canee ko li ñu cenee nawleem ya moo tax can gi ko yonent bi jox ay million la pour mu def ko ci moom ba mu ñëwee bu war koo indi nag euh, ndaw sa naakoorut ne daal moom bëggut càmmeñam ja di Abdoulaye ne moom tamit bëggul xam nga jigéen moom nangu na jëlee fu suufe yëkkati fu kawe waaye nanguwul bàyyeekoo fu kawe di wàccee ci suuf nanguwul ko jigéen loolu loo ko yëkkati xeet na ko waaye loo ko daane tamit naw na ko moom kay mun gën a yëkkati koo rek rawatina jamono ji ko wax mu ne maanaam étage ba mu kawe ku ne bàyyi xel nekk ca étage ba ku lay wàcce foofu loo ci man moom kon kay ca kaw rek wax wax ñoom ñaar d'accorduñu ne kii duwut suñ nawle moo tax sëy nawle am na ci solo wallahi soo ko xeebee mu yàq sa àdduna kii sa nawle boo ko xeebee takk ko mu yàq sa àdduna dana la topp ba ci say doom dana la topp ba ci say sët da dem ba am ci doom boo takkee ku sa nawle sa doom yi màgg farak seen yaay nga soppeeku surga yàlla boo nekk góor ak seen si njabar da gën a sonn moo tax nawle lu am solo la ku ko bàyyi rek yàqule nawle nag ci fuqaaw yi ñaari xaaj la dafa am lu ñu tuddee tuf kuf kuf u taam ak kuf ul atam kuf u taam mooy booy gor muy gor ngay jullit muy julli rek nawle ngeen al muslimu kuf un li kulli muslimatin la yonent bi wax gor nga gor laa ba tey tamit maanaam euh, jullit nga jullit laa sama nawle nga waaye loolu lekk nag boo ko jëlee tamit doy na ci charia waaye doyut ci aada foog nga jël jëm jëfandikoo kuful atam kuful atam mooy lu bari la day laaj ndaw si ngay takk ngeen xaw a jege ci ay at waaye boo dekkee màgget takk xaleel bu ndaw la fa bàyyi sëy ba mooy am-am bu fa neexatul sëy ba tas kooku du leen nawle ndax su jegee jegewu leen ci ay at ñaareel bi tamit ci nawle day fekk ngeen bokk milieu su fekkee tey yaa ngi dëkk waxin ca àll ba di nit ñu baax nangoo yet nangoo jaamu yàlla dundee seen ñaq kii yaroo ci teeru bi xamul dundunu kaw soo ko bëggee takk yóbbu ko foofa am ama ko fay bàyyi bu fa amul tamit maanaam sëy ba tas naka noonu tamit ngeen xaw a jege ci jikko su fekkee wuyu nga boo xam ne foo toll yaa ngi naan di def lu bon ñu jël nit ku baax may la ko am am moo ko fay bàyyi waaye boo amatul tamit mu tàppaas la tas waaye feeg yaa ngi am du gis sa jikko ju bon ji day am kon ku ful atam lu bare bëree bari bëri la mag ñëpp dañ ko doon bàyyi xel Cheikh na Tidiane bàyyi woon na ko xel ba mu demee Faas te moom yëg na ca kaw ga la bàyyeekoo fële ca aynu maadi dent ak taaju mut ca Algérie ci région bu ñu tuddee Laxwaat ba mu ñëwee rek barke bi barke bi song ko doomi maanaam saxabaam yu tedd yooya nekkoon fa di boroomi alal jël seen doom yu jigéen ñi ne ko dañ ko bëgg a may sa doom yi Cheikh ne leen déeréet man kaw kaw laa sama doom yi kaw kaw lañ yàgg yàgg sama doom yi dañuy ñibbi ci àll ba doom yi nekk fii ci Fass ñun dëkkinu teeru yóbbu leen ci àll ba dañ leen lor suñ leen bëggee takk tamit des ak ñoom fii ñoom ñi sëy yi dañuy mujj tamit loru kon bàyyi leen sama mbokk yi ñu dem takk ci seen mbokk ya te yéen yi ngeen may seen doom yi seen mbokk yi kon maanaam nawle loo ci bàyyi mu feeñ sa sëy bi jigéen daal boo koy takk na fekk li muy laaj lépp yaa ko ko ëppale ëppale ko ay càmmiñam sëy ba mën naa dem waaye boo duggee ci koo xam ne ay càmmiñam ñoo la man fuuf moom moo la ëppale fuuf lépp boo moytuwul sëy ba du dem ndax jigéen fu ñu toll dañu bëgg ku leen yokkal bëgguñ ku leen wàññi kon kooka boo ko jëlee yaa ngi koy wàññil boo ko wàññilee sëy ba du dem day tas moo tax yonent bi bu mu takkee sëy bi tamit sonn na ci lool joxe can bu mot sëkk waaye sëy ba mujjul woy ñaari baat ñett rek ndaw si askanam xeej ko mu ñëw rek moog moog ta maanaam tappaas jëkkër ja ñu xuloo jotee jëkkër ja sol ne ko yaa ma ko mayoon dama caa bëgg a génn yonent bi ne ko am si nga alayka sawjaka demal nga téye sa soxna si wattaqillaa nga ragal yàlla ci ban koo fase mu nekk ca nekk ca nekk ca ba sonn mënatut koo yoreeti mu ñëw ne ko daal dëgg dëgg yonent bi daal mënatumaa demati te naan maa mënoon mënatut ku la ko wax nga xeeb ba sa jabara la ko waxut wallaay sa jabar bu ne maa mënoon mënatut da nga xam ne kàddu gu xeebuwut waaye sa jëkkër tam bu ne maa la bëggoon bëggatuma la demal kooku ku koy ku koy xeeb sa jëkkër la ko waxut moo tax na ba mu ko waxee sëy ba tas te yonent booba yëg na ne bu sëy bi tas ndaw si jàpp yedd rek buy jeex yàlla may ko ko te buñ ko ko mayee ñu bëri dem safara dana danañ yàq deret na takk na jabari doomam voilà moo fi jaaroon dee mu naan doomam la fu ne mu yóbbu ko tey takk na ko te nit ñi duñ xam li tax yàlla def ko dañuy dem safara te yonent bëggul teen dem safara ndax nit ñi dañuy wax ba ci ngelaw li bay wax li ci ngelaw li te xamuñ ca dara te li ci ëpp ci leneen la ñuy wax lu leen dugal safara la yonentu na bëggul kenn demee safara ci moom moo tax bu ñëwee rek mu ne ko am si nga alayka saw jaka ba mu demee ba mënta demati ba mel ni waa ndeysaan siise siise ba dafa takk ku dul nawleem mu sonal ko lool ba bëccëg mënu koo yore mu mel ni daal dañ koo yen lu mat fukki bërigo yoo xam ne mu ngi ko yenu ci boppam yàlla dogal ko ba mu génn ca sëy ba nag def koo sant yàlla xaar ba guddi rek mu wara a tuur ndox génn ci wanag wi di tuur ndox dégg way séet mu gaaw rek dagg tuur ndox ma rek tëjaat buntu mu ne lu mel nii lañ ma indiloon li la doon gaa yi waay dama fa ne man lañ koy indilaat dana ko yow nag feex nga trop gaaw tëj buntu ba moom toog xam nga kooko sonn na trop kooko ku ne ko jabar moom mu xeex ak yow moo tax am na ci ñoo xam ne bu ñu xasee génn ci jabar kenn mënut dañ liggéey dugalati ndax liñ ci daj buñ la ko wax am na ci jigéen ñoo xam ne tamit li ñu daj ci sëy buñ ci xasee dugg kenn mënu leen cee dugalati su ko defee kon moo waral ba ba sëy ba tasee rek yàlla nag may ko jibril may ko may ko yonantu bi yónni jibril ne ko demal nga annoncé xibaar bi yonantu bi yonantu bi toog rek sallallahu alayhi wa sallam jibril ne ko maa ngi lay takk ga bàyyee ko may nañ la léegi zeynabu yonantu bi nag ndeysaanam yónni saydu mu dem wax ko ko booba nag xijaab ayatu xijaab wàcc na mu dem ba gannaaw wan ko gannaaw rek wax ko ko nag su defee nag kon saydu moomu yàlla terelee ko tudd turam ci alquran ñu koy jàng ba péncam yàlla yàlla wan ko soxnaam ci aljaana fekk deexagut yàlla wéral na ak ngëmam danañ ko jàng léegi yàlla ne na ku gëm yàlla la ku gëm yàlla aljaana nga jëm kon moom xam na ne aljaana la jëm te fekk deeagul kon moom bi mu muñee lii li ko yàlla fayee moo gën fuuf li mu ñàkk su ko defee nag sëy euh, euh, kii moomu euh, sëy na bu moomu keroog ba ko bi takkee céetale na ko céet gi gën a rëy ci céetam ci soxnaam yi mooy céet ak xadijatu gi ñaareel bi mooy Zeynabu da ko dafa bëggoon a siiwal bëgg a màbbu aada jooju ñu bëgg wax ne doomi jëli du doom mu bëgg ko wan nag moo tax mu céetale ko céetale gu rëy rey gàtt woon nit ña ñëpp daje. am na ci soxnaam yoo xam ne ruy rek mooy céet ga ku mel ni may mun a tubam koy ba mu koy céetale ruuy rek lañ togg séddale ko ay kaas gaa yi naan ko waaye même ki moom duñ koy céetale rey na gàtt jënd ay mburu def soos ñëpp daje pour maanaam xibaar bi bëgg mu gën a tasaaroo sëy na bu mii daana bàkku nag ne yéen ñi ñëpp di soxnaa yonantu bi seen bàyyi ñoo leen may yonantu bi man yàllaa ma may yonantu bi defuma seen morom daana bàkkoo loola ñaareel bi moom mii mooy ki njëkk a fekk yonantu bi ci biir suuf ki soxnaam yi bi yonent bi génnee àdduna ku ko njëkk a fekk ci soxnaam bu ñu la ko laajee mooy Seynabu mii mu war a takk si kon Seynabu am na ay daraja yu bari ñoom nag daanañ bàkk ku dajee rek kenn ku ne wax la la ngay bàkkoo Aïcha daana bàkkoo ne man mii rek la yonent bi takk may jànq yéen ñi ñëpp ay jeeg ngeen man kenn ciy jànq Xafsatu daan bàkkoo ne man la yonent bi fase yàlla fay li ma kon man yàllaay sama goro yéen nag seen bàyyi mooy seen goro kii tamit moom bàkkoo ne man yàllaa ma may yonent bi kon duuma seen morom kon ñoom ñëpp daanañ bàkkoo loolu nag moom melokaanu jigéen la jigéen lu mu ëppalee moromam wan ko ko mënoo ci dara foog mu foog mu feeñal ko moom lay wax si nii nag bañ bi bi yonentu bëggee takk sëy bi ndaw si bañ ne du sama nawle càmmeñam ji di Abdoulaye bañ ne du sama nawle yàlla nag moom lay wax si nii moo tax mu ne wama kaana yellut li muminin ñeel benn jullit bu góor wala muminatun du caa kenn benn jullit bu jigéen mel na Seynabu ak Abdullahi ida qada bu àttee laahu yàlla wa rasuuluhu ak yonentoom ba amran mbir an na bay nekk lahum di leen ñeexal xiyaratu ak tànn bu yàlla xasee tànn yonentu tànn tànn amatu fa min amrim ci seen mbir dogu rekk ca am samixnaa wa ataxnaa moo fa des wa man yax képp koo xam ne mooy na laaha atteeb yàlla wa rasuuluhu ak atteeb yonentu bi faqad dalla sànku na dalaalan ak sànku mu biinan aji biir de ba aay ji wàccee ñoom ñaar ñëpp ñu jébbalu ñëw ne ko d'accord nañ sëy ba dem waaye woyut mu ñàkk way gëm mooy wax fàttalikul is taqulu ba ngay wax yow yonantu bi lillazi ñaal ngóor sa nga xam ne mooy Zaydu anama xéwé na laahu yàlla alay ci moom yàlla xéwé na ko ba jox ko gëm yàlla kon gëmam gi yàllaa ko seede wa anam te xéwé nga alay ci moom ba goreel ko nga koy wax ne ko am sik ngëbal alay ko ci yow saw jëkka sa soxna si téye ko bu ko fase wattaqi ragalal yàlla wattaqi na nga ragal laaha yàlla ci téye sa soxna si bañ koo fase yonent bi nag yàlla di ko weer ne ko wattux fii yaa ngi nëbbu fi nafsika sa bakkan maa la nga xam ne allahu yàlla mubdihi yi feeñal na ko mooy li nekk sa bakkan xam nga ne sëy bi na tas te bu yedda jay jeex nga takk ko te bëggoo loolu am ndax bëggoo kenn dem safara wa tax saa yaa ngi ragal naa sa nit ñi seen kàddu yu ñaaw yi mënoo ci mucc wallaahu yàlla a xaqu moo gën a xeyoo an tax saahu ba nga ragal ko léegi nag jeex na fala maa qadaa ba nga xamee ne passé na saydun séet mooy faj na wataran aajoom mooy fase na soxna sarak sa waj naakaa ci lañ la ko denc loo li koy laa yàkkoo na ngir ba nga nekkati alal moomin ni ci jullit ñi xarajun xat-xat xarajun tiis fii aswaaji adiyaayihim ci denc soxnaa yi seen yaayi seen bàyyi njaabal yi te mooy bàyyi jiit la yi ida qadaw bu ñu paasee bu ñu fajee min hunna ci ñoom wataran xaajo wa kaana nekk na amrullaahi mbiram yàlla mafuulan di luñ def loo ca man yàlla def na ko jeex na bu ragalati làmmeñu nit ñi nit ñi kenn mënta mukki seen làmmeñ defal la Muusaa la ko yàlla waxoon Moussa dafa ñëw ne yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci làmmeñu nit ñi nit ñi dañoo ñaaw làmmeñ bu ma kenn wax lu ñaaw dama ragal kàddu gu ñaaw yàlla ne ko Moussa li may ñaan man awma ko nit ñaa ngi nii maa leen bind mu may sànni kàddu yu ñaaw dem di jaamu keneen ma leen di wërsëgal ñu bàyyi ma fiy sant keneen di ma askane ne am naa ay doom yu jigéen muy malaaka yi di ma askane ne man mii ku nay laa ba ne yeddullaahi maxlu la ku mën a mucc ci nit ñi yàlla muccut ci yonent bi muccut ci nit ñu baax ñu muccut ci waaye nag ñoom ñëpp seen jëmm ya yàllaa ko tooke ku leen laal rek alku am na ñoo xam ne yàllaa tooke seen yaram ya boo leen laal alku ku bëgg a alku nag ñaareel day gis luy alkale rek mu daw daanu ca tey boo fi taaloon safara muy séebu gunóor yi war a dee yëpp da nga daw daanu ci safara bi ku leen woo bëgg a dee rek mu leen woo kon tamit mu yàlla bëgg ñi alku da nga jël seen làmmiñ yi di ko sànni ci dor yi deru yonent yi wala ñu koy sànni ci deru yu baax yi boo ko defee rek alku xasaale yu ne bañ nit ku baax di wax ci moom lu bon dana dem ba ngay dee yàlla rëkki sa gëm yàlla gi nga dee ci kéeféer ñu sàng la sàng seede fekk lépp ab xéeféer lañ ko defal kon yàlla nañu yàlla bëggaloo gaayam yi ci barkeeb sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen teg seen baaraam foofu nag ba yàlla indiwaat ñu fi ci kàttanam suma ci waxtu wi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu